test test test asalaamaaleykum waa Bambey asalaamaaleykum waa Sénégal waaye rawatina tamit waa àddina du ñu bàyyi benn yoon mbokku internet Bambey TV yi nga xam ne dañ ñuy daal di suivre di daal di suivre programme bambay Bambey TV fépp fuñ mën na nekk ci àddina rek ñu ngi leen di jaajëfal di leen nuyuwaat bu baax di leen wax ne comme ni ngeen ko gisee ba tey ñu ngi ci Bambey nee naa leen fii nga xamante ne mooy département bi euh, ñu daal di nekk ci marché bi ngeen gis ne tey euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy association ànd suqali Bambey nekk groupe boo xam ne dañu suudewu boobu non seulement fu nit nekk ci dans le monde rek yaa ngi fi euh, bokk ci groupe bi waaye tamit bokk ci li nga xamante dangaa bëgg mu daal di suqali sa dëkk gis ngeen ko partout fu nekk nit jóge na fa daal di ñëw teewe bés bi nga xamante ne fay euh, ñu ngi koy amal fi muy set setal bu leen fàtte ne ñu ngi ci période pandémie ba tey covid 19 yéen a ngi gis masque yi waaye ñu seetlu ne cas yi mu ngi yokk bu baax gis ngeen ko ànd suqali Bambey daal di dikkaat daal di dugg tey fi nga xamante ni mooy marché central bu Bambey ruq yeeg ruqaan yi ndax comme que lépp ci xaj set la xaj rek gis ngeen noonu la waa ànd suqali Bambey daal def tey dinañ leen indil ñi nga xamante ni ñi ñoo ko commencé ci président bi ba ci bépp membre boo xam ne yaa ngi bokk ci fii ànd suqali Bambey xanaa ñu daal di leen jëlal point de départ bi nga xam ne waa ànd suqali Bambey déparé nañ ko fii tey pour war a dugg nag wër fi nga xamante mooy département bi yëpp pour daal di fiy def set setal xanaa ñu daal di leen nuyu rek daal di dox ba ci ñenn ci ñoom ñu taxaw nii voilà gis ngeen ko euh gis ngeen ko non batay comme niñ leen ko waxe fi moy point de départ bi bu ngeen ko setlo gis ngeen ko ci côté mairie bi yépp alentour mairie bi yëpp waa ànd suqali bambay dal di nañ fi démarrer li nga xamanteni moy set setal bi ñu dal di set setal fofu dal di dox nak eh, néna la dal di jël mbéd bi nga xamanté ginnaw biñ juggé ci alentour mairie bi fa la ñu jëm muy bir marché ak li wër marché yépp gis ngeen ko ñu dal di leen won rek ñi nga xamantene tay ñoo wote set setal bi Euh, ba ngeen gis dëkk bi macha allah commencé di set di yànj mu ngi nii euh, gis ngeen ko ñu daal di leen jëlal image rek. gis ngeen ko noonu comme niñ leen ko waxee woon gis ngeen association bu mag boobu nga xam ne nee naa la doomu Bamba yi nga xam ne ñu ngi ci fépp ci àddina ñoom ñoo ci bokk daal di takkoo nag def benn say lépp ci bëgg a jëmmal Bambay waaye nee naa la setal Bambay jox Bambay benn bët boo xam ne exemple lay doon partout dans le monde ñëpp di ko xool gis ngeen tey président wu président de l'environnement ànd suqali commission euh, de l'environnement ànd suqali Bambay moom la ñu taxawal nii ñu gën ko xam ci turu euh, Bira Kane Mbodj El Hadj gis ngeen ko eh, gis nga ko moom dañ koy bàyyi rek eh, mu daal joxe ci quelques kàddu avant ñuy continuer ndax ñu ngi ci set setal ba fay tonton Birane nuyu nañ la wa rahmatullah taala wa barakaatu waa Bambey TV waa mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi ziar ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp aussi vraiment di sant yàlla nag bu baax a baax a baax a alamin eh, di gërëm waajur yi di ñaanal da nga maam ñi nga xam te ñoo fi ko yal na yàlla yërëm leen te bàyyi ñu fi ba ci kanam Bambey nag mu ngi nii ñu ngi def benn association de développement boo xam ne pour la première fois ñu bëgg nag doomi bambay Yep, yep, yep, yep, diaspora surtout ak ñi nga xam dañu nekk ci biir commune bi ak département bi bokku ndey bokku baay comme ni Touba ci kanam di def ñun aussi ñu jéem a def noonu. parce que Sénégal gépp dañuy cotiser di yóbbu Touba pour ñu defar Touba parce que capitale religieuse la mais aussi inspiration boobu loolu noonu dafa inspiré ñun ñi nga xam dañoo dëkk Bambey ñu bëgg nag alors euh, def loolu noonu commencé depuis DAO, heure bi def reboisement vraiment bu am solo fait ñi couvrir 1000 francs ak 500 1000 francs 500 francs am plus de 3 millions de suñu kees te bu nous activité en attendant suñu récépissé sax moo génnagul activités mais pour le moment activités activités de développement comme ay reboisement ay les ay les nous préfet accordé donc tey nag set setal la ñuy def tey le 6 dimanche dem nañ ci maire waxtaan nañu ak moom parce que moom dëkk bi moom aussi jox nañu accord te jox nañu aussi ay éléments ñi nga xam ne ñoo yore euh, mu ngoog nettoiement beeg yooyu ak tracteur mairie baa nga nee. As Gaye aussi di doomu dëkk bi doomu Amadou Gaye dëkk Diourbel mais dafa opérateur économique nekk Bambey liggéeyee Bambey am fi teranga abal nañu ñaari camion ak benn chargeur pour bu ñu set setalee ba pare. ñu def remblai bi maanaam fi nga xam ne ndox mi dafa daan yëpp ñu def fa grava def fa suufu njaaram bi defar ko ba mu rafet euh, président commerçant yi Abdou Ba aussi ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm parce que mom ak Alaaji Ndiaye nijaayam wo nañu comité marché bi waxtaan nañu aussi ubbi ñu seen buntu parce que c'est marché bi lañ koy commencer ba paré ñom ñu ngi ci biir di gënne mbalit mi diko tour ci biti yang koy gis na le ñun aussi ñu ñew and ak ñom té ñom aussi joxé nañ seen participation joxe nañu ndox joxé nañu xéewal wax dëgg yalla ñom aussi ñu ngi ci biir euh ñuy sant aussi population bi ak surtout nak membre comité directeur u ànd Suxali parce que réunion nañ fi ñetti réunion yu nga xam si ñoom ñëpp dañu ñëw joxe seen xalaat te set setal bii ñoom ñoo ko proposé ci programme environnement bi la bokk mais ñun ñëpp benn lañu maa ko c'est vrai euh, am nañu aussi suñu ay mbokk yu nga xam si ni ñu ngi à l'étranger comme ma Ousmane Mbodj il est vice président le président El Hadj Ousseynou Kassé tailleur xam nga ko mu nekk Dakar moom moo jiite yëf yi ak euh, ba Biram Ndiaye agronome la mu nga Serra c'est le vice président nous avons aussi ay président président d'honneur comme Malik Mbodj Malik Mbodj membre euh, vice président Sénégal ak euh, Abdou Cham, premier vice président États-Unis ak Ibou Cham, premier vice président de Côte d'Ivoire. Nous avons aussi ay ay commission comme ça commission environnement comme nous ma la je la léegi commission finance Ousmane Niang mu ngi dit, taxaw aussi une euh, commission santé Karim sport Cheikh commission yi bon ñu ngi xaar nag maintenant un programme boo xam ne ni commission yëpp ñoo ko war a def bu ñu maintenant ñu condensé ko sur un document moom mooy nekk suñu programme annuel waaw donc voilà pour le moment ce que je peux dire c'est setal bi tey programme bi lan la mooy ñu set setal commencé ko fii ci mairie bi wër alentour préfecture def nañ ko ba pare wër aussi alentour mairie def nañ ko ba pare ñu ngi ni dugg nag def artère marché bi bu ñu paree maintenant ñu dem ci remblayage bi euh, ba ba ba ba yàlla sutural ñu daal ñu àggale ko ci jàmm alhamdulilah rabbi alamin suqali bambay ñu nekk nee naa la group boo xam ne dañu suudewu fépp fu doomu bambay nekk ci àddina rek bokk na ci ñu daal di am benn objectif nag mooy bambay nekk ci beneen vision mais nekk ci beneen dimension te lii moom mooy commencé pour ñu daal mën ko di fa yóbbu balay loolu rek dinañ leen daal di continuer jëlee leen image yi ngeen gis ñoom tey nan lañ futteekoo daal di sostenito ni dugg ci biir dëkk bi pour gën ko setal ñu ngi leen di jaajëfal jëlee leen image waaw d'accord d'accord après après euh, baal mu dem voilà ba tey niñ leen ko waxee gis ngeen ne eh, ba tey eh, ànd suqali Bambey rek nee naa la lépp looy def rek da ngay daal di jaar fi nga xamante ne mooy porte d'entrée bi loo gis rek dafa am fooy jaar pour dugg fa ginnaaw bi nga xam ne asos bi daal di nañ taxaw pour daal di setal Bambey waaye tamit pour bëgg a boole Bambey dañoo jaar ci ki nga xamante ne ni mooy kilifa gi munoo tudd Bambey wala nga bëgg fi def dara sax sans nga daal di jaar ci moom muy kenn ci Bambey muy monsieur le maire Gana Mbaye ginnaaw buñ ko nuyoo daal di koy juyaaraat taal bi sëñ Cheikh Jëmb Fall boobu kii ñu taxawal daal di nekk représentant dañ koy daldi jox rek euh, bu conseil municipal bi nek ci mairie bu Bambay dañ koy Abdou Diak dañ koy Abdou Ndiaye dañ koy daldi di rek mom mu présenté wu euh, ginnaw bu mu yëkkatee kàddu yi nga xamanteni da koy yëkkati ci turu monsieur le maire Gana Mbaye tonton ñu ngi lay nuyu. waaw ma ngi lay fay jërëjëf euh, ma ngi nuyu ñëpp di nuyu wa mouvement Suxali Bambay di len jotali nuyu monsieur le maire.

kon bu amé un mouvement bo xamné ni nii un benn une commission parallèle pour ñuy liggé ci walu assainissement ak environnement dañ ci sawar ta dañ ci duggal suñuy moyens wa monsieur le maire nak ci jëmbam mo bëggoon a teewal boppam ba motax ba tardivement la ma woo sax ne ma pour nga téwal ma duma mëna ñëwati parce que mo né won li comme ay doomi Bambey ñoo taxaw bëgg développement Bambey te ku ci def lool ci mom nga koy defal mom nga ci andal mu ne ma dama yaakaaroon ne suñu séminaire bi dina jeex mais ba léegi ñu ngi Kaffrine après ci la ma woo le matin dama il faut nga mën a dem kon représenté ma ci euh, kii boobu journée boobu mais moo amoon yéene teewal boppam ci loolu te it buñ ko waxee ñu gëm ko ndax euh, tenir nañ ay séance de travail yu bari ak li nga xam ne moom mooy mouvement suqali bambay ak moom ak préfet ndax comme li ma wax rek <clears throat> mooy li nga wax ci sa entame de propos manam bambay lo fi def lu ne donc maire bi nga koy defal lo ci def lu ne tamit maire bi da ci wara and ànd ngeen def ci donc bu loolu amé ñu ay doon bambay taxaw ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci diaspora bi ne dañu bëgg liggéey and pour défar suqali bambay loolu vraiment idée bu noble la te ku nekk dañ ko wara a rafetlu bu dee un mouvement de développement donc te développement mom képp kuy juk rek war nga cee mëna juk taxaw bi nga defee tam ñu accompagner leen ci en matériel accompagner leen ci suñu personnel IGE ba yëpp ñu ngi ni ci biir di ci travaux and ak ñom di liggéey ak ñom donc maire indi na ci apportam indi na ci donc appui matériel ak personnel bo xamné ni nii ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ci terrain bi and ak gaay di liggéey. amna solo.

dañoo bëgg set setal suñu dëkk kenn fayu leen kenn neexalu leen donc loolu mbégte laa ci am ndax li nga xam ne lii ci commission bi ma yoraan organiser naa fi ay journée yoo xam ne nii ñun ak maire yi ak préfet ñoo ko defoon donc chaque semaine chaque premier weekend end chaque premier samedi euh, du mois ñu génn dem ci benn quartier set setal ko defar ko donc loolu bu ko ñeneen ñëw citoyen citoyen ñëwee ànd ceeg ñun dañ koy rafetlu vraiment tey mbégte laa àndal yéeg yéeg bu am solo la àndal parce que dafay wane ne bambay ñun benn bopp lañ kenn mënu koo xar ñaar lu ñu mën a réeroo ci wàllu politique lu ñu mën a réeroo ci wàllu nangam ba bambay soxlaa wala ay doom yu bambay taxaw ne dañoo war a mën a tabax bambay ànd ko loolu lu rafet lay doon moo gën ñu tojantey bopp ci loo xam ne amul benn njariñ am na solo dégg ngeen ko noonu moom mi nga xamante ne euh, moo fi teewaloon ki nga xamante ne mooy monsieur le maire daal di koy représenté comme ni mu ko waxee euh, ku nekk xam na ne buggoon na teew fii ndax lii dafa nekk lu am importance nee naa la ay kilifa daal di génn sol seeni tani comme nii nga leen gisee ne ñoom dañoo jug tey pour seetal bambay loolu yaakaar naa bu ñëpp àndandoon def noonu bambay di nga dox ba mbuus sax dootoo dajeeg moom wala nga di ko ci fort di ko jaajëfal bu baax di ko wax lan ngay tàggatoo waa ànd suqali Bambey

loolu aussi ma di ci jaajëfal jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci quartier yi ak gox-goxaan yi nga xam ne ci biir dëkk bi la euh, di leen ci gën a ñaaxaat ci loolu ne leen di leen ci leen ci gën a mbir mi daal lu ne ku ne la lu ne ku ne ngi ci donc ku nekk dugal ci sa loxo pour njariñal Bambey rek donc di tàggatoo di leen sant yéen waa

sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci mouvement bi comme li nga wax rek mouvement kii la mairie institution la ñu ngi leen di tàllal suñu loxo pour ñu gën a ànd liggéey ci li nga xam ne mooy njariñu bambay kese kese kese mu bañ doon njariñu kenn wala njariñu keneen donc bu doonee njariñu Bambey kese rek defe naa ne ànd ba dina rafet liggéey ba dina rafet ndax bambay doo ci ciy jariñu ma jariñu ci nga jariñu ci keneen jariñu ci te loolu mooy am solo ndax santé avant tout donc kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla ngeen ko noonu jaajëfal nañ ko moom mi nga xam ne moo fi teewaloon monsieur le maire Gana Mbaye fii nga xamante ne mooy ci association ànd suqali Bambey seen activité yi nga xam ne doon nañ ko démarré tey dañuy daal di continuer rek daal di leen woon ñoom nin tàmbalee seen set setal ci biir marché kàddu yi am na solo ñu ngi koy jëfal di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom rek mu jàlla leen ñu ko ci suñu monsieur le ñu indi leen image rek won leen ni ñuy set setalee fii tey ci biir Bambey kuy ñëw euh, soit day ndugg si wala day ngeen rek comme niñ leen koy waxee gis ngeen ko bu baax a baax ba tey ci mouvement ànd suqali Bambey bi waxoon nañ leen ginnaaw biñ jëlee ci point de départ bi dinañ avancer ak yéen ba nga xam ne noonu la nga xam ne waa mouvement bi tey àndandoo nañ di ko daal di def fii nga xamante ne mooy marché bu Bambey ku ne xam na ne marché bi dañ ciy dugg sept jours sur sept chaque jour rek nit ñi dañ ciy nekk ba tax na suñ koy def lu mel nii day daal di am importance ndax sept nag ci la lépp xaj respecté maanaam marché bi suñu yaay yi dañ fiy ñëw suñu papa yi suñu tante yi ku ci nekk rek soo xëyee membre bu nekk sa famille dina daal di ñëw fi nga xamante ne mooy ci marché bi anam day ndugg si wala dafiy liggéey si kon chaque jour rek dafa war di lii ñu gis tey suñ ko doon am chaque jour day gën a neex duñu fàtte benn mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi dugg ku ci mel ni soxna Mbay Njaay ñu lay jaajëfal bu baax euh, ku ci mel ni euh, ki nga xam ne mooy Fatim Thiaw depuis Espagne moom fu mu toll day daal di suivre programme Bambay TV Fatim Thiaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la nuyu moom nii rek rek lay def nee naa la sama xarit boobu maa ngi lay nuyu di la wax eh, namm nañ la trop di la xaar fii ci Sénégal ba tey ku bëgg a bokk ci mouvement bi du ñàkk ci kanam dinañ leen jox numéro téléphone yoo xam ne fépp foo nekk rek mën nga bokk ci ànd suqali bambay moo xam eh, da ngay daal di yónnee sa xalaat di ko audio ngay daal yónnee sa cotisation di ko mais fépp fu nit nekk ci àddina mën nga bokk ci ànd suqali bambay ñu ngi leen di jaajëfal jëlee leen image ba ci kanam ngeen ko ba tey yéen a ngi ne fi nii nag bu leen fàtte benn yoon ne yéen a ngi nii ci xolu marché bi ba tey ginnaaw bañ démarré fi nga xamante ne mooy ci mairie bi ba tey ñu ngi continuer rek daal di mën a set setal yi eh, li wër marché bi ak li ci biir marché bi yépp ñu ngi taxaw ak kenn koo xamante ni suñu tonton la suñu papa la dañ koy bàyyi rek mu daal di représenté waat ndax nee naa la sax eh, gën xammee nañ ko bu baax ci mouvement bi nga xam ne mooy ànd suqali Bambey ndax nee naa la du tey kase ñu daal di couvrir li nga xamante ne mooy seenu événement eh, ginnaaw buñ ko bàyyee mu présenté waat rek wax ñu ban poste la occupé ci mouvement bi nga xam ne mooy ànd suqali Bambey ak li waral tey objectif bu set setal bi tonton ñu ngi lay nuyu. Ben, ma ngi leen di fay di leen nuyu yéen ñepp di nuyu wa bambay di nuyu and suqali bambay di nuyu wa bambay TV ah di remercier bambay TV toujours.

te dëkk bi bu bu tawee day taa ay kamba fi nekk ñu ne kon lu ñu def dañuy bale marché bi alentour bi xool route route yi nga xam ne ñoo nekk fii ñu xool nga am nañuy kàmb ñu sëkk leen ak grava ba pare jël suufu suufu jurbel bi sëkk rambale ko ci kon loolu buñ ko dee def loolu lépp pour ba pour euh, suqali Bambey la te amuñu leen lu dul Bambey te Bambey ñun rek ñu noo ko mën a defar kon donc ñun ñong ki wo di gëna wo ñaax ñëpp sa limay may damay lancer encore li gëna li gëna a tuuti mooy que carte amna ñuy carte de membre yo xamé 1000 francs rek lañ koy jaayé parce que système bi ñong ko jël ci système Eh, Touba ca kanam fofu lañ inspiré wu parce que ñun tam loolu lañ bëgg ñu bëgg wa Bambey gep ku nekk ñew def ci sa dërëm la la boko mënu sa nga ñew jënd carte membre 1000 francs lay jar bu dee bu jigen bi 500 francs donc la lay jar kon ñoo ngi leen ci wo di leen ci ñaaxaat di remercier nak bo ñi nga xamné ñoo ñu jappalé parce que tel que le monsieur le maire tam def na ci loxom tel que a As Gay ñoo ngi koy sante bu diko gëreum bu baaxa baaxa baax parce que tay ay camion lañu lañu jox jox nañu ay tracteur te tay ay pelle mécanique yoy buñ ko seeto estimé won tay ça va faire une valeur de cinq cent et quelque bon donc yooyu yëpp dañ ko dañ koo baaxalee ba nga xam ne li nga xam ne oyof nañ toll ci suñu kon kon nag ñoo ngi koy remercier bu baax moom tam euh, te di ko sant Modou Ndiaye nag tam tam sa DG tam dinaa ko remercier bu baax parce que da di nit koo xam ne fu ma mu nekk fa parce que ma ko mujj wax démb la laa ko mujj doo di wax bu ko neexoon ne ko eh mu ne ma ah mu ma dama am beneen programme mais defu ko ba ma wax mu mu ne amul problème Ma la fay jiitu te tey gis nga wane na ko ba ma ñëwee maak moom ñoo extendoo te en tant que moom tam ci membre la sunu membre yi ci la bokk kon nag ñoo leen di remercier bu baax di leen sant di leen gërëm jërëjëf. jaajëfal nañ ko tonton Ousmane Niang moom nga xam ne mu ngi bokkoon ci ànd suqali Bambey ba tey nii la ñuy def rek dinañ continuer daal di leen jëlal ñenn ñoo xam ne tamit ñu ngi bokk fii tey ku ci mel ni ki nga xamante ne moo jiite marché bi daal di nekk président wu marché bi moom tamit dinañ leen jëlal ay réaction ci lii nga xamante ne ñu ngi koy daal di mën fii mu nekk marché bi ak président commerçant yi ñu gën koo xam ci Abdoul Ba Abdoul Ba Pa Alaaji Ndiaye ñoom ñëpp dinañ daal di jël seeni réaction ba tey rek <coughs> di leen jaajëfalaat di leen wax ñu ngi leen di bàyyi ak image yi set setal bi pareegul kon nekk na mbir moo xam ne ñoom bu ñu def ko ci marché bi rek ñun dañ leen di sant gërëm leen ci ba pare ànd ceeg ñoom ndax li waral lool ndax ku xam Bambey xam ne Bambey yaatu na ku xam bambee xam ne Bambey fukki quartier la ku xam Bambey xam ne marché ngi fi euh, dara la ngi fi garage ngi fi mais ñoom bu ñu jëlee seen action indi ko marché kon ñun duñ def lu dul rafet la rafet la ko ànd koog ñoom ndax tey jii boo gisee liggéey bu am solo bi nga xam ne ñi def ko nga xool li fi nekk ci ay jeunes xool li fi nekk ci ay femmes xool li fi nekk ci ay sages xool mbalit mi nga xam ne génn ci marché bi nga xam ne marché Bambey tilimoon na kon dañuy lancer un appel ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jaaykat yi que lii nga xam ne tey jii moom la ànd sukkali bambay def que ëllëg bu ñu fi ñëwaatee bu ñu fi fekk mbalit mu toll nii. ndax loo gis rek dafa am lumu lay jàngal ñoom bu fekkee ne jël nañu seen alal jël seen temps jël seen moyen ñëw jàppale ñu ñoom bëgguñu ëllëg bu ñu ñëwee ñu naan nañ delluwaat marché bambay kon lii na nekk jàngat ñun nga xam ne ku ci ne place ba nga yor soo xëyatee ni ngay def ba xëy ba bale boo wàccee tee nga bale def noonu jël sa mbalit takk ko bu oto mbalit bi ñëwee nga def ko waaye li ñu fekk ci marché Bambey nekk na loo xam ne man rafetlu ma ko ndax da gis taabal yi li ci nekk ci mbalit bari li fi nekk ci ay xottu butéel yi bari na li fi nekk ci ay sées yi dama bari na te instant bi dañoo nekk ci jamonoy corona bu ñu nekkee ci jamonoy corona première phase bi ba mu ñëwee préfet dafa génne arrêté jëlee ñi nga xam ne tey ji ñooy borom taabal yi ñu toog ay fan liggéeyuñu kon bu ñu ñëwaatee ba euh, préfet autorisé leen corona ji wàññi ñu bàyyi leen naat ñiy liggéey ba pare ñu bëgg a nekkat nu ñu nekke woon lu nekk loo xam ne lu rafet na kon ñun ñu leen di ñaan ku ci ne ñi nekk ci biti ku ci ne yor taabal fépp fu ñu la yemloo nga yem fa boo wàccee wàccatee nga bale ba mu set jël sa mbalik tuur ko may lancé waale un appel boo xam ne ci jamonoy corona lañ ne tey ji ñëpp ñëpp xam ne ni démb 100 cas lañ am tey ji ñu ngi ci 80 cas kon ñu ngi ñaax commerçant yi ku ci ne boo xëyee nga takk sa masque jël say mesures barrières ñi nga xam ne tamit ñoo jëm si marché bi tamit ñu def la même chose parce que ci jamonoy corona lañ nekk. jaajëfal nañ la kàddu yi am na solo waaye man na euh, sama question mooy euh, comme que marché bi comme ni nga ko waxee bari na mbalit bi biñ fi duggee est-ce que yéen tamit yéen ñi nga xam ne yàlla dafa def ngeen jiite ko du ngeen gën a organiser wu ba nga xam ne da ngeen di jàpp benn bés boo xam ne ci semaine bi moo xam quinzaine par mois wala par fin du mois ngeen daal di koy seet seetal marché bi ndax buñ fi dikkatee du mel nii. waa loolu initiative yaakaar naa wax waxtaan nañ ci ak ndax bi nga xam ne dogal jóge na ci kaw ñu ne marché marché yi chaque dimanche dañ koy tëj. bi ñu demee ba nga xam ne tey ji kaa yi wàññeeku na muy diggante màggal ak gàmmu demoon defoon nañ délégation dem ci préfet waxtaanoon ak moom nee ko léegi dañoo bëgg dimanche bi ñu bàyyi ko bu ñu bàyyee dimance bi dimanche bi nga xam ne dafa mujj ci weer bi ñi di bale marché bi bu boobaa moom euh, mu jël équipe bi nga xam ne tey ji moom mooy bambay parce que tamit mairie bi euh, ñi nga xam ne tey ji mooy waa UCG ñoom seen kilifteef dafa néewul ci mairie bi ñoo ñooñu seen kilifteef ci état la te ñun daanaka li ñuy bëgg li ñuy bëgg toujours ci mbàllu mbalik mënuñu ko am keroog maa ngi koy wax ci région euh, réunion conseil municipal bëri na ci loo xam ne maire bi mu ngi mu ngi koy góorgóorlu waaye ci wàllu mbalik moom dafa des ndax boo xoolee benn oto UCG moo fi ne équipe bi fi nekk di bale bëriwuñu te amuñu matériel loolu mooy problème bi tey ji dangay bale mais problème oto lañ am Bambey ndax tey ji oto tracteur mairie yi jamono ji dañoo paan te mbalik moom yaakaar naa ne boo balee def ci saaku teg wala nga bale def ci wet ga yaakaar naa ne bale woo mais mbalit mi toujours dañ ko war a jël dajale di ko di ko di ko yóbbu mais incha allah dinañ delluwaat ci préfet que loolu ñu initié woon mooy que chaque chaque fin euh, dimanche bi mugu ci weer yi ñi xel di bale marché bi mu boole ñoog équipe bi nga xam ne tey ji moo nekk Bambey ñi ñi ñi koy ñi ñi ñuy bale mais une fois ñuy félicité di remercier waa ànd sukkali bambay ndax euh, lii nii ñoom nit ñin wa doomi Bambey ñoo wa a daw uti leen ndax bu fekkee ne nit mu ngi def sa njariñ yow waroo toog di xaar war a poser question mooy lan gis nga nit ki boo bëggee dëkk gëmab dëkk bu ñuy def benn affaire yow war a toog di poser ay question demal rek soobu ci fekk sileen leen parce que ñi fi ne njëriñu Bambey doo nga leen yëkkati Bambey may remercier tamit diaspora bi nga xam ne tey ji mooy diaspora ànd sukkali Bambey ndax ñoom ay doomi Bambey ay doomi dëkk bi lañ seen njaboot ñoo fi ne mais ñooy toll bitim réew di créer initiative bi di jël seen alal di ci def kon ñi fi nekk tey ji ñoo action bi mais initiative mu ngi jógee ci diaspora Bambey te tey ji boo xoolee tey ji dëkk yi fi développé yëpp ci Sénégal loxoy diaspora bi mu nga cax kon lii nii peut-être xañ na waroon naa yàgg am mais bu demee ba am léegi rek ku ci ne da cee war a jàpp tey jii dama lay jox exemple tey jii suñu dëkk benn village la boo xam ne quatre-vingts kër quatre-vingts moo moo fa de tey ji diaspora ñoo fa dugal courant dugal fa euh, ndox def fa poste de santé ubbi fa école te loolu loolu yaakaar na initiative boobu ànd ak Suxali Bambey mu ngi ci seen i vision jamono ji dañoo toll ci jaay mouvement bi bi ñuy jaayee mouvement bi moo taxoon ñu defal reboisement tey ji ñu def set setal pour que waa Bambey xam mouvement bi waa Bambey daw fekk si mouvement bi mais gis nga waa Bambey gépp bu ñu ñëwee topp mouvement bi allah kulli ali nañ fi def loo xam ne mairie bi du ko fi def état bi du ko fi def parce que mairie Bambey amuñu lu dul juuti kese la ñu am état bi tamit euh, ay lu mu ay soxlaam dafa bari kon ñun doomi Bambey ñoo mën a defal ñoo ñoo mën a defaral ñoo mën a defar Bambey waaw. am na solo nee naa la ku xool ci moom mii rek wala sax nga daal di déglu ay propos nee naa la doo toog di xaar kenn ci Bambey lépp loo xam ne développement Bambey la ñeewa rek da daal di jug nekk ca fajar gis nga ko moom dafa nekk jeune boo xam ne mu ngi fii ci Bambey waaye soo gisee ñëpp daal di koy xàmmee parce que fas-fasam la gëm-gëmam ak bëgg Bambey non seulement dafiy liggéey am fi soxna am fi njaboot waaye tamit dafiy bay waaram di fi wane boppam ñu koy jaajëfal moom mi nga xam ne moo daal di jiite bépp jeune boo xamante ne ni yaa ngi fii ci biir département bi rawatina ñi nekk ci biir marché bi euh, jeune commerçant yëpp kii moo leen jiitu ñu gën ko xam ci turu Abdou Ba ñu ngi koy jaajëfal bu baax euh, nii la ñuy def rek daal di leen indilaat yeneen image ku ci mel ni ki nga xamante ni moo jiite mag ñi muy Pa Alaaji Njaay moom tamit dina daal di dem léegi daal di leen jëlal propos yi nga xamante dina ko joxe fii ci si set setal é puja, caramba. Papa Alaaji. loolu lañ bëgg a jël de. maa ngi fi maa ngi fi loolu lañ bëgg a jël de. Hmm. waaw. day wuyu. mu ne waaw tal nañ micro mana gis ngeen ko ci liggéey bu am solo boobu ànd suqali Bambey di def nii ngeen teewa ko ngeen gis ne kii ñu taxawal mooy Pa Alaaji Ndiaye daal di jiite fi nga xamante ne nii mooy marché bu Bambey eh, naam ñëwoon nañ fi ci période corona bi def ak moom benn waxtaan mu daal di liggéey ci liggéey bu am solo liggéey bu am solo bi mooy lan gis ngeen ne yëpp yu bokk ci wàllu raxsu wala lu doon setal marché bi wala loo xamante dafa bokkoon ci respecter mesure barrières yi moom doon na ko def eh, di ko amal wante ne ñoom la te wala ñoo ko fi teg sax ñu di ko respecté ginnaaw buñ ko nuyoo daal di koy jaajëfalaat dalal ko jàmm ci Bambey TV euh, dañ koy bàyyi mu nuyoo rek mu wax tey lan la yëg ci liggéey bi nga xam ne mouvement bi ànd nañ di ko defal Bambey. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu nuyu leen kenn ku ne ci sa tur ak ci sa sant di sant yàlla bu baax bi mu nu mayee ñu jàpp date bi fekke ko kon nu wax alhamdulilahi rabbil alamin Ah, di sant nag bu baax a baax euh, ñi nga xam ne ñooy projet bi nga xamante ne ñoo association bi nga xam ne mooy suqali Bambey ñu dikk ne dañu bëgg a jàppale ci seet seetal ci marché bi dëgg la commencé woon nañ ci jëmbat garab moo war a jiitu waaye à part jëmbat garab nag marché moo ci war a topp ndax marché lépp lépp ñëpp a ngi ci waaw ah, kon ñu sant yàlla baax ci Bambey TV di rafetlu nii lañ ko defee bi corona bi commencé it ñoo ngi rafetlu bu baax a baax seen i taxawaay ci dëkk bi ak seen i doxalin waaw Euh, mu nekk liggéey boo xam ne ñu ngi koy def euh, comme li ma wax Abdou Baré muy sama question euh, ginnaaw ñu duggee ci marché bi gis nañ ne xaw na tilim te waa marché bi yëpp ñi nga xam ne ñoo fiy jaay génnuñu sax pour daal di ñëw participer ci yéen dirigeants yee quelques commercant lañu ci gis est-ce que du ngeen jël jour boo xam ne ci semaine bi wala ci weer bi wala ci quinzaine bi dangeen koy daal di def nii ànd ak mouvement bi di seetal Bambey ndax mu bañ a melati nii ci marché bi. Barakallah loolu ñun ñoo ngi ci woon ci waxtaanoon nañ ci préfet. ba mu ne chaque fin de mois maanaam dimanche bi mujj ci weer bu nekk danañ daje pour ñu set setal marché bi. ñoo ngi ci waaye nag da ngay xam ne matal li lépp yàlla rek matal li lépp yàlla rek mais li ci ëpp parce que bu ñu dee téeméer la nga am juróom bu ko sooy boo nga ne ma ne nga combat booba te ci loolu la nekk. pootol nag ñoo ngi wax waaye nit ñi am na ci ñoo xamante ne boo leen bëggoon ci seen kaw la li ngay wax duñ ko def xam nga li ma la wax yow donc ku parce que toujours ñoo ngi wax ñuy dajale seen i mbalit di ko def ci saako bi ngeen taataa ñëw man 9h lañ jox leen rendez-vous 9h mooy quart maa ci biir marché bi ànd ak xale yi ak commerçant yi ak ñi fi nekk ñu génne mbalit mi. kon loolu taxawaay la waaye nag motal lépp dana xaw a jafe am na ci ñoo xamante ne comme ni ma la ko wax rek moom defar moom soxalu leen ah noo ngi sant bu baax a baax nag ndax ñii nga xamante ne ñoo ñëw ne lii lañu ko bëgg a jàppale te xam na seet li mu li mu servi ci diine. parce que anasabatu min al iman la wax anasabatu taqil amrat mune set ci diine la bokku ci gëm yàlla la bokku ta set da fay fek febar motax dañ ci sante yàlla bu baakha a baax di sante ñi nga xamanteni ñoko jité ko jiite commencé ci président ba ba ci ki ci gëna ndaw kon ñoo ngi leen sante leen gërëm ci seen taxaway leen sante nak yéen babay TV di leen beral loxo da daanaka li ëppoon sax bu ngeen jëlé Abdou barek jël ngeen ma parce que Abdou Ba li wax man ma koy wax lo ah ñoo ngi leen di jot li nak ne yu kilifa yi nu yooyu kilifa yi muy alaaji góori Caam mi président marché nuy loxo am ak responsable yi ci des yëpp asalaamaaleykum wa salaam euh, gis ngeen ko am na solo moom mi ñu jël ko rek euh, nee naa la duñ sonn wala ñu ciy taay ndax symbole la képp koo xam ne yaa ngi tëddoon sa kër waaye gis nga ko à travers Bambey TV nga gis ne mu ngi participer ci liggéey bi rek prochaine fois suñu wootee tee da ngaa war a teew daal di def comme moom ndax kat euh, ñëpp ñoo ci war a jàpp rek Bambey gën a sa jëfal na jaajëfal nañ la papa xanaa nga joxe sa dernier mot rek. li ëpp ci jàngale mooy li ngay def nga jiitu ci li ngay tere kenn du ci seen man bu ma nee leen nan def nangam maa jiitu li ma leen di tere kenn du ma ci seen yaakaar naa jàngalekat yi li ëpp la ci jàngale booy tere sa doom pon wala nga di ko tere sigaret di ko di ko ko yónni yaa ko man li ma gëm mooy looy tere yaa koy jëkk a def looy looy digle yaa koy jëkk a def looy tere yaa koy jëkk a bàyyi mbay ci say woom Wassalamualaikum. wa rahmatulah. Eh, jërëjëf ñu daal di amaat beneen élément ci wet gi rek ba tey ci mouvement ànd suqali Bambey suñu benn tonton suñu papa moom tamit dañ koy bàyyi mu présenté wu rek daal di wax ni mu gisee gisee ni mu gisee tax taxawaayu ànd suqali Bambey tey ci initiative bi nga xam am nañ ko papa daal nañ nuyu di la ziar. waaw salam salaam TV maa ngi di nuyu di leen ziar bu baax. xam di tàmbali rek di leen sant ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ngi koy def ci Bambey avec li wër Bambey parce que communication dafa am solo ci dundu doomu aadama ndax tay bu fekkee ne yu bari ñu ngi koy def euh, lëkkaloo bi ñu mën ko def ci walu média yi euh, dana yombal lepp lo xam ñu ngi koy def ci wàllu liggéey euh, tay nak daf ñu de nek ben journée spéciale le 6 décembre 2020 fi ci ci ci Bambey association And Suxali Bambey nek kurel go xam dañ ko taxawal boobaak léegi yaakaar naa ne mois de juin la tambali waaye gis nañ ne euh, ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk di ci liggéey ñu ngi ciy def liggéey bu bu bu bu am solo euh, kon euh, li nga xam ne moo ñu tax a jóg rek mooy participer ci développement économique et social ak culturel bu bu Bambey ndax dañ ne dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi moo moo moo moo ko gën ndax yomb na nit toog rek di formuler say critique ci dëkk bi nii muy doxeek ak nii muy def ak nii nit ñuy doxalee Euh, mais yow boo joué wut sa partition keneen joué wut partition bu yàgg itam yaakaar naa ne dëkk bi du dox parce que élément de base yi kenn ku ne yaa mën a am sa conscience bopp xam li la war ci dëkk bi nga taxaw ci taxawaay boobu mooy tax nga mën a remplir ses devoir parce que yaakaar naa ne bala ngay euh, jéem a xam laaj euh, say yelleef da ngay jéem a accomplir say say devoir te opération set setal muy nettoyage boo xam ne Euh, dañ ko jël tey jagleel ko le marché de Bambey marché centrale Bambey yaakaar naa ne dañ koy def pour toute la ville de Bambey pour toute la commune de Bambey ndax amul benn famille boo xam ne tey da nga yeewoo ci ci ci ci ci ci dëkk bi te te te doo am soxla ci marché bi su dul yow itam di kenn ci se membre famille. Euh, kon nag lii tey ñu initier ko euh, di sant suñu président sëñ Ousseynou Kassé ex de la diaspora ba paré nek un tailleur nekk à Dakar di jité association bi waye ñu lëkkaloo itam wa marché ñi nga xam les commerçants yi fi nek euh Hadj Ndiaye euh, sank mi nga doon interviewé euh, nek ci bopp ba kon nak tay dañoo and ak ñom euh initier opération bi ngir vraiment participer ci ciatu euh, marché bi parce que yaakaar naa buñ ci tàmbalee fii élargir ko au fur et à mesure mën nañ fexé ba Bambey liñ ci soxla ci walu cet dina am ndax nim la ko waxé légui cet diine ko njëkk a santaane eh, te kenn ku ne war nga set sa bopp set ci sa yaram set ci sa environnement kon nag loolu tey moo sabab li nga xam ne ñu ngi koy def. gis ngeen ko mu daal di nekk kàddu yi am solo mu yëkkati ko ba tey rek dañuy daal di bëgg mu rappeler waat ñu poste bi nga xam ne daal di na koy occupé ci mouvement bi nga xam ne mooy ànd suqali bambay voilà man euh, Malick Mbodj laa tudd euh, un ex agent de l'ISRA Sénéral Bambey. Euh, pratiquement euh, bi may ñëw Bambey ak léegi mu ngi bëgg ami fan parce que yaakaar naa def naa fi ren euh, quarante quarante quarante quarante six ans quarante six ans yu mat sëkk yoo xam ne def naa ko ci dëkk bi kon man je me considère comme un citoyen à part entière de Bambey ndax fi laa ami soxna fi laa liggéey bu jël suma retraite continuer nekk fi kon dëkk bi suma dëkk la kon nag lépp loo xam ne yëkkati nañ ko fi doon naa ci dugg man may coordinateur association Euh, ànd suqali Bambey niveau Sénégal parce que dañu am ñaari coordinateur kenn ki mu ngi tudd Ibra Thiam mu ngi nekk Côte d'Ivoire mooy coordinateur diaspora euh, mais am na ku ñuy représenté au niveau des États-Unis muy Mbaykan Diouf euh, temps nawet bi yëpp mu ngi fi woon opération yi ñu fi jot a def reboisement yëpp fekkee na ko bii sax naroon na ko fekkee mais démb lay soog a à 4 heures du matin la def benn audio wane ne delluwaat na États-Unis mais xelam yëpp mu ngi ci liggéey bi. am nañ un autre coordinateur boo xam ne mu ngi nekk au niveau euh, Europe euh, muy muy euh, suñu frère Ibra Dioum moom mu ngi nekk itali moom acteur présentement mu ngi fi mu ngi ci biir liggéey bi xam naa du ñàkk su ngeen doxee ba gis ko moom it mën nga ko laaj dana mën a wax au nom de la diaspora mais le coordonnateur États-Unis am na keneen ku fi nekk muy Abdou Thiam waaw xaw ma jot ko gisam déet waaye mu ngi fi moom itam dafa ñëw vacances mu ngi caaro à Dakar mais opération bi moom moo moo tax euh, mu bàyyi activité am yëpp ñëw ànd ak ñun liggéey bi. kon daal euh, man loolu laa représenté ci association bi seq ko nag doomu Bambey yëpp ak les sympathisants de yi ñu fas yéene daal lépp loo xam ne rek luy suqali dëkk bi la ñu dugal ci suñ loxo euh, dañ ne kenn rek bu jógee day def lépp mënu mais nag boo indee tuuti ma indi tuuti indi tuuti bu yàggee mu doon dara voilà loolu daal mooy suñu taxawaay. Euh, ban mu ngay wax ànd waaw ànd suqali Bambey daal li may wax rek def appel a mhm. toute la population de Bambey amul xaj amul seen mhm. di woo association yëpp. Mhm. parce que dañ ne euh, ñi dëkk Bambey ak ñi sopp Bambey ñoo xam ñu ngi biir Sénégal wala ñu ngi ci diaspora bi ñëpp ñoo ànd surtout que sax lii ñi ne ci diaspora bi Bambey waa nekk diaspora ñoo ko initié. kon kenn ku ne war nga ci sa kenn bon association yi na ci bi mais pour fédérer en tout cas boole ñëpp ñu boole synergie énergie ngir a fexe lu développer Bambey secteur bu doon dans le cadre de l'association, association mettre nañ sur pied des commissions boo xam bu euh, identifier nañ pour mën a xam euh, boo buggee suqali ab dëkk war nga xam dëkk bi mooy jafe-jafeem lan mooy mooy yi nga xam ne mooy gangrène en tout cas développement am suñ demee ba am diagnostic def xam loolu su boobaa danañ mën a def un plan d'action boo xam ne moo ñuy gën a guider orienté yi pour action yi ñuy def ñu gën ko mën a perpétuer voilà léegi daal kon euh, tàllal nañ loxo ñëpp te xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk euh, ka xam ne nag li ñuy wax rek politique wuñ mbiru diine ki waaso yi nekku ci mbiru tarixa nekku ci Euh, képp koo xam ne rek en tout cas doomu bambe nga dañ bëgg ñun ñuy tirer vers le même sens ndax euh, ñaare li indi euh, ay féewalu ci ay nit mooy kenn ku ne seet lay say intérêt nga ne ci keneen seet lay intérêt am intérêt yi bu dajewul rek jafe-jafe day am mais fii moom on vise le même intérêt on vise le même objectif on vise le même but donc war nañ mën a ànd ci xel ak xalaat ci ànd bu rafet ngir liggéey def jërëjëf macha allah tonton jaajëfal nañ la bu baax di leen wax ne rek kàddu yi am na solo lii moo nekk objectif fu ànd suqali Bambey takkoo jàppoo booloo waaye liggéey pour defal Bambey liggéey pour développer bambay waaye liggéey tamit pour fi ñuy dégg dëkk yëpp ñu daal di fay dégg Bambey dinañ du ñàkk comme ni mu ko waxee ñi nga xamante ne eh, nee nañ gis nga eh, Bambey doomu bambay nga xam ne ñu ngi nekk ci diaspora bi lañ gis nga ko tey dañu daal di ñëw ñenn ci ñoom daal di assister li nga xamante am na fi du ñàkk dinañ leen daal di jëlal seeni réaction rek ba tey ci ànd suqali Bambey bi ñoom ñu ngi suqali waaye tey dimanche nekk daal di 6 décembre 2020 rek taxawoo pour démarrer ni muy suqalee Bambey ñu ngi koy jaajëfal beneen élément dinañ leen ko indi léegi ci kanam 嗯，好，你去打打。 ba tey ci ànd suqali bay set setal bi nga xamante ne ñu ngi koy amalee rek fii ci biir marché bi gis ngeen ginnaaw ba ñu jëlee ñi nga xamante ne ñooy président yi daal di jiite marché bi gis ngeen liñ naañ parité foo gis jigéen rek da ngay gis góor mu teg ko ci watam lépp mu ngi wone ne marché commun la mais ay jigéen ak góor ñoo ko bokk ay magaki ndaw ñu taxaw ak kenn fii si suñu wet muy tataaxu jë ñëpp xam ko ci marché bi mu nekk vice ki nga xamante ne président wu marché bi bàyyee mu nuyo rek daal di présenté wu dañ koy bàyyi mu wax lan la yek tay ci li ginnaw bu nuyo ba paré tata bisimilahi rahmaani rahim sant yalla rek nga ngi nuyu ñep di nuy allah ndjay mi suñu président di ci tek Adja jor saw mi suñu président mo mo waroon taxaw fi tay waye dafa am ité bu mu doxé mu ne ma na nga dem teew fa su fekkee mi ngi fi ñun ñaan ñep ñun ñaar ñep ñoy bokk teew waye li mom lu bax la lu rafet la set setal mom dafa war ñep warna ci kër gi warna ci marché ba warna ci mbedd mi kon nak bu yalla defé ngeen ñëw na da ngeen ñuy jàppale seet seetal bi lool dañ ko rafetlu lool ndax seet mom fepp la baax ñu ngi sant ñëpp goor ak jigen mag ak ndaw. nga gis né eh, ginnaw bi seet seetal bi amé ni eh, naam yeen ñi nga xamné yeen yéen a jiite génn ngeen ak eh, yenn yi ci commerçant yi manam ñi ci gëna a lax mais gisuñu né nit ñi ñu bari prochaine fois est-ce que du jar ngeen gëna a duggaat ci marché bi gëna waxtaan ak suñu mbokk jigen ñi ndax ñuy gëna genn bu bëss yu melni amé mm. lool mom dina ko jaro ay jigen ñu sawar lañu. ñu sawar ci woote ñu si la ni xañ na ndax ni mu demee la ak ñàkk euh, yooyu yëg noonu waaw waaye ñoom ñu ñoom ñu sawar ci mobiliser wu génn lañu jigéen ñi moom kenn demul ñu des góor ñi kenn demul ñu des waaye ñun jigéen ñi tam kenn demul ñu des waaw Euh, jaajëfal nañ ko gi ngeen ko noonu muy Tata ja présidente gis nga vice présidente président bi nga xamante moo jiite marché bi ba tey quelques réactions dina leen indi ñi nga xam ne nee naa la ñooy doomu Bamba yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi ñoom daal dina ñuy ñëw tey assister li nga xamante ne nii mooy ànd sa suqali Bamba yi lii ñuy amal tey kenn nekk ni sama wet dama koy nuyu rek dam tamit gis nga ba tey ci jigéen ñi nga xamante ne bàyyi wuñ ko benn yoon a góor ñi ndax bu góor ñu yoree ay brouette ñi yor ay tracteur ñi yor ay ratu jigéen ñi dañuy nekk seen wet yor i bale ñoom tamit lu ñu romb rek daal di koy balewaale yóbbaale ko kenn ci ñoom ñu taxaw ñoom ni dañ koy daal di nuyu bàyyi ko mu présenté wu tata nuyu nañ la. waaw na na la naa def maa yéen a ngi ci jàmm waa Bambey maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di kontaan ci mbale mi nag ndax li moom baax na trop ndaxte ay nit bu ñu dee ànd toujours ñu ngi xàcceendoo di dóoróondoo liñ bëgg di dinañ ko am kontaan nañ trop ci mbale mi Bambey set na nii lañ ko bëggee woon ni nga xamante ni moonu tax a jóg ñu jàpp loolu sàmm loolu képp koo xamante ni yor nga ci sawaar di ko ci béy nga def ko ci ndax suru bu jekkee ñun la jekkal bu ñaawee ñun lay ñaawal kontaan nañ trop ci mbale mi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen laaj yëpp. Eh, gis ngeen ko eh, lan ngay wax pour bu rek. waaw su beneen yoonee may wax sama mbokku jigéen ñi bu nu na ndax nit lu ko tax a jóg da cee def fullaam ak faydaam boo teelee jóg li nga xamante ni moom la ñu mobiliser di ko def ñëpp jàpp ci buñ ci jàppee incha allah lépp dina dina bokk yemandoo waaye bu ñuy xëyee ñiy toog du jariñ dara ñax sox ñëpp am soxla mais soxla soosu da nga koy tënk def li nga xamante ni moom lañ bokk bokkandoo xàccee ko dóorandoo ko parce que loolu moom moom moom lañ waa Bambey moom lañ bëgg te moom la ñu soxla kontaan nañ trop nag ci mbale mi parce que baam fii kii set na kii na kontaan nañ trop daal yéen it ñu ngi leen di nuyu di leen di leen di leen ñaanal parce que seen liggéey rafet na jekk na te li ci war yéen a ngi koy def kontaan nañ trop ci yéen am na solo ba tey ci àmbi suqali Bambey gis ngeen ko image yi jeexagul dinañ continuer mais ba gis ngeen ko Bambey TV bu nekkee en direct rek ci ay programme am yi nga xam ne daf koy couvrir à chaque fois day am ñoo xam ne ñii nekk nañ fi ñii nekkuñu fi mais dañuy yor seen téléphone di suivre li nga xamante ni mooy information ñi daal di koy joxe gis nga ku ci mel ni di Dianka ñu ngi koy jaajëfal moom fu mu toll rek day daal di dugg ci page Bambey TV non seulement waaye di suivre ay direct directam Cheikh Dieng bàyyi wuñ ko benn yoon Cheikh jaajëfal nañ la bu baax ku ci mel ni Modou Diop gis ngeen ko Modou Diop ñu ngi koy ziar moom tamit di ko jaajëfal Jili Diop Jili Diop fàttewuñ la benn yoon yéen yéen a tax ñuy daal di sonn ndax naam ñii ñoo ngi fi ñii nekkuñu fi mais ñoom dañuy bëgg di xam li nga xamante ne moo xew ci dëkk bi ñu ci bari nga xam ne ñu ngi à l'étranger gis ngeen ne marché bi ak ni mu bindoo daal dina xawoon wéet torop ci ñoom ñu gëj ko gis mais indi nañ leen ko tey à travers Bambay TV gis ngeen ko euh, gis nga lu faa caw lu faa yow tamit jaajëfal nañ la bu baax euh, ngi lay jaajëfal bu baax di la remercier yow Bambey moo la war a remercier Mata Diouf Mata Diouf jaajëfal nañ la Laay Diop fàttewuñ la benn yoon ki nga xam ne mooy jaxate Diakhaté jaxate Diakhaté eh, jaajëfal nañ la félicitation Bambey TV mais yow Mamadou yow lañ naan félicitation yow mi jël sa temps di suivre Bambey TV gis nga pap Ali Samb Pape Ali Samb mu ngi nekk en direct ak Bambey TV ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom tamit Sadi bu Sey Sadi bu Sey ñu ngi lay jaajëfal yow tamit fépp foo nekk nekk en di daal di suivre Bambey jaajëfal nañ la ki nga xam ne mooy Modou Diop ñëwaat na mais na merci jaajëf yow tamit merci kontaan nañ ci yow di leen wax rek ngeen commenter partager dinañ leen jaajëfal bu baax ndax yéen yéen a ñu fi tax di toog ba tey gis ngeen ko rek internet yi ñu ngi réagir nee naa la ñu ngi leen di jaajëfal rek gis nga ku ci mel ni Pape Sall moom tamit mu ngi daal di jaajëfal Bambey TV Pape Sall jaajëfal nañ la bu baax gis nga ko ku ci mel ni Basirou Basirou Diagne euh, dundal wéral amoo fay Moustapha Ndofène Diouf ba tey dañuy continuer kenn nekk koo xamante dafa bokk ci staffu ànd euh, suqali bambay dañ koy daal di nuyu rek suñu tata bi moom tamit gis ne mu ngi njaflax boobu ba tey mu ngi ci buvet yi di puus nee naa la gis nga ko jigen ñi goor ñi da ngay daal di gis jigen ñi seen wet ñu di leen dooleel di leen jappalé euh, nee la exemple légui gis ngeen ko mu ngi ci liggéey bi bu baax di ci joxe énergie dañ koy nuyu bàyyi ko mu présenté wu rek waa di wax ban poste la occuper ci and suqali Bambey. waaw ah, maa fii ça va na nga def ma lay nuyu di nuyu ñëpp di leen ziar man ma nek responsable des femmes mhm. ànd suqali bambay di rafetlu nak initiative bu rafet la sincèrement li ñuy def ni yombul. te yaakaar naa ne foo gis euh, benn xale gis fa ñaari mag wala ñetti mag yu sax bi jaaw xam nga ne lii du ay caaxaan mais xale yi ci boppam léegi ñoo naxaree convaincre da nga wax ba sonn ñu ne dañ noo nax naxati ñu naxati ñu naxati ñu mhm. kon nag bëggatuñu ku ñuy nax ma leen lii ay nax ku nekk na nga jàpp na say bopp la parce que defar nit fenn mu set rek mu ñëw toog fa rek jaamu yàlla la mhm. te jaamu yàlla ku nekk du yuleeg jàpp rek jaamu yàlla côté bu ne ko mën a defee kon marché bi suñ ko defee la suñ bopp lañ ko defar ak ñi fiy ñëw parce que dëkk dafa war a sell wala rafet comme nag gën nañ am xel bi di ko def damay ñaan li laa war a sell ñu ciy continuer di ci seet noo xam ne rek day jëmale Bambey kanam rek man ci loolu laa bëgg a yëngu ci laay dox sincèrement ci côté yëpp nag côté yëpp sama mbokk jigéen ñi wax dëgg yàlla sa sago moo la tënk moom kooku moom remercier wu ma ko moom parce que ñëwul pour li am mais ku nga xamante ne sa sago teewu la mhm. tamit di nga bokk ci remerciement mais ñi ñëw daal amuñu seen fay moom sincèrement par la wax dëgg yàlla waaw parce que ay jigéen lañ mais bëgguñu góor ñu yóbbul ñu dara ci côté mm-hmm. boobu ni ma leen doon wax rek chaque fois dama leen parité <laughs> na solo <laughs> ah. gis ngeen ko suñu tata boobu nga xam ne moo jiite responsable yi nga xam ne tata Khady Diarra Ndiaye jiite responsable des femmes fii ci ànd suqali Bambey dañ koy jaajëfal ba tey rek gis ngeen ko ci réaction quelques personnes yi nga xam ne dinañ ko jël beneen tonton mu ngi nii suñu wet moom tamit dañ koy daal di bàyyi rek mu daal di ñëw présenté wu moom tamit wax ñu nan la daal di bokke ci groupe bu ànd suqali Bambey tonton ginnaaw buñ la nuyoo dañ lay bàyyi nga présenté wu salam asalaamaaleykum euh, soxna si maa ngi lay sant bu euh, di sant euh, sama association man la Jibril Jong dëkk waxal jàmm bokk association ànd suqali Bambey yor comité bi nga xamante ni éducation et formation professionnelle ndax association bi non lay doxee dafa dañ ko diviser par ay commission kon boobu commission moom lañ ma dénk tey jii nag la am ci présentation di la xaar nga laajaat ma question

Euh, ci samay projet aussi dugg ci école yi mhm. euh, xol ba xam école yi set nañ am déet ba xam douche école yi set nañ am déet mhm. euh, ma wo sama association ñu dugg fa aussi loolu aussi samay projet la mhm. euh quant à la formation professionnelle aussi xol ay jeune yo xamni ñu ngi euh association bi bu fekkee mën la leen res formation loolu aussi samay projet la bok soxna si gis ngeen ko kàddu yi am solo yoyu lan ngay wax tay wa bambay kon ndax lu am solo loolu euh, boko beugé def yakarna naa bi yep war nañ an ban message ngay lancer waat rek. wa may euh, lancer message bo xamanteni bi mang koy euh, sanni waa dëkk bi yep mhm. ndax dëkk rek ni rek lay doxé mhm. dëkk faaw ñu am ce qu'on appelle une génération de sacrifice mhm. manam ño xamni dañuy sacrifier sen bop bañ ci xol kenn juk ngir développe ñun ño wara développer dëkk bi. parce que dans les pays européens boo xoolee noonu la noonu la mel quoi da ngay gis benn euh, pàcc bu ndaw jug ni ñun tey réew mi ñoo ko war a développé kon ñun ci tey suñu xam-xam bu gàtt dañu bokk ci ñi nga xamante ni bii ñoo war a développé Bambey te dañ koo gëm nag euh, développé dëkk nag neexul ndax lu ne di nga ko dégg di nga dégg ñu naan euh, seen intérêt lañ ci àndee dinga nga dégg ñu naan la waaw vraiment lii ak laa lu ne di nga ko dégg mais rek gëm-gëm gi moo ci am solo te lépp loo jëf rek. na nga xol yalla ba xamni li nga nekk nii dëgg la yon la nga and ci dem mo kon li nit ñi wax mom euh, bu mu déranger kenn ndax aduna non la depo kenn mënul ah, euh, li ngay def nit ñi and ci à 100% tay amna ño xamanteni na ñoo nga tëdd seen lal di nelaw te marché bi ñoo ko gën yayo mhm. marché bi ño fi ëpp tank mais ñinga nga di nelaw ñun ñu leen koy defal man je suis un professeur man damay jàngale ji bu suba mhm. kon tay buma ma ci marché bi suba duma fi ñëw di jaay duma fi def dara mhm. kon dama fee teew pour sama yaay dama fi teew pour sama papa yi teew fi pour sama rak yi mhm. kon vraiment loolu rek laa doon euh, wax nit ñi di leen gën a ñaaxaat ci développement xam ni on à l'heure de l'action Sénégal dañu war a dépasser wax ndax wax yëmalewul fenn maam Cheikh fal mu baax ma doon na ko wax nañ fexe ba yàlla fay wax bàyyi jëf kon jëf ci la lépp ne kon ma ci woowaat nit ñi ñu jëf bu baax a baax a baax jërë jëf gis ngeen ko réaction yi am solo yooyu nga xam ne daaj nañ koy gis ba tey ci ànd suqali Bambey ba tey dañuy di continuer rek bala ñoo jëlaat deuxième réaction bi ñi nga xamante ne ñoo ngi daal di suivre Bambey TV ku fi mel ni Moustapha Ndofène ñu ngi koy jaajëfal bu baax Sidiki Diank ñëwaan na ak gis nga Sadibou Sey ñu ngi koy jaajëfal Ngagne Diop fàttewuñ ne benn yoon gis nga ko Mbaye seen ngoom Ngom jëfal nañ la ñii dañu nekk internet yoo xam ne à chaque fois dañuy daal di suivre en direct yu Bambey TV di amal moo xam ci département bi wala sax ñu génn fépp fu ñu dem dañuy suivre Bambey TV na jong gis nga na ñu ngi lay jëfal bu baax Saliou gis nga Baye Fall Saliou amal jàmm yow tamit Cheikh Ndiaye en attendant beneen réaction di ñëw rek ñu daal di jël suñu tonton bi suñu wet moom tamit daal di bokk ci ànd suqali Bambey ñëw ca fajar bokk ci liggéey bi ginnaaw buñ ko nuyoo bàyyi ko tamit mu daal di présenté wu dañuy wax nan la mouvement bi tëddee ak ban post la ci yow nuyu nañ la. ñu ngi lay fay bu baax soxna si. Euh, ginnaaw bu ma nuyu ginnaaw bu ma sante yàlla julli si yonent bi sallallahu taala wa sallam vraiment di leen jëfal yéen waa Bambey TV di leen ñaanal seen Bambey TV bi yàlla na nekk international waa nekk ci boîte yi gën a rëy ci àdduna bi waaw man nag euh, environnement laa nekk ak Birakan Mbodj vraiment ñu ñu gis ni tamit le maire euh, day def kéemtulaay kàttanam waaye aussi il faut doomi dëkkam tamit dugal loxoom dugam seen loxo ci biir dëkk bi donc loolu nag ñun ay représentant waa diaspora bi lañu waaw pour incha allah ñuy bokk ndey bokk baay di jàppalante ñi si kaw ak fii donc loolu moo waral lii ba soo xoolee suñ première action reboisement la woon si mois de mois d' août euh, vraiment ma jiite woon ko man ak Birakan Mbodj

moo tax comme nawet bi jeex na nag ñu ni nañ commencé ci marché central bi nga xamni suñu ndey yeeg suñu baye yeeg suñu rakk yeeg jarbaat seen ah, ñu jëm fé tassé ah, daal di bolé suñuy doolé ak eddu maire ak doomu dëkk bi yépp ñi adéré ak adéré gu ñëpp si Bambey and soxali Bambey pour ñu mëna sét sétal marché central bi muy marché Bambey voilà

point bi ñuy njëkk am muy point l'essentiel bi moy nan lañuy ñuy suñu suñuy ci Covid bi pour éviter contamination ici am quoi donc euh, jënd nañ ay paquet paquet masque ay gel vraiment wax nañ tamit euh, nañuy s'orienter euh, vraiment lolu dañu am ñuñ ko charger ño xamni lolu moy sen domaine kon lima ma si mën a rek moy lolu farata la bo xamni euh sa buñu ñu ak le maire mi ñukoy fatte euh fàtti buñu bu ak le préfet mi ñukoy ñu le commissaire mi ñukoy ñu té tamit ñun sax ñu jitu leen ci lolu nak parce que tamit xam ñu Covid bi euh dal jël sey matuwaay lu am solo la. Hum amna solo tonton de ngeen mbay Babacar euh, sen Ngom comme question boobu nga xamne dal di nga koy poser rek j'espère que am nga ci satisfaction ci réponse yoy nga xamne ne jox na lan mooy dernier mot bi ngay tàggatoo. wa dernier mot bi rek moy euh, damay l'appel damay def ben appel diko lancer population Bambey bepp euh, bari na ñoo xam sax ken bari na ñoo xam adhéré wuñ ci association yi te ken gënu leen bëgg a waye toujours dañuy am doute parce que association bu taxaw dañ naan c'est dañuy politique wala amna lu nek sen ginnaw mm-hmm. bi kenn nek ko suñu ginnaw mm-hmm. ñun dañuy defar rek te yalla tax xexuñu le maire xexuñu opposition soxlo wuñu dara en toute sincérité ñun Bambey rek moñu ñor Bambey moñu ñor pour contribuer si Bambey euh, li ñuy def nak amul politique yaa ngi dégg amul euh, côté euh, affaire religion catholique wala musulman non non non amul tarixa amul waaso amul xet amul yooyu donc képp koo xam ne rek Bambey nga dëkk rek woo nañ la si nga adhéré carte 1000 francs lay jaar chaque mois 1000 francs ñu ñaq yooyu la ñuy jël di ko dajale di ci jéem a suqali Bambey donc vision la boo xam ne ñu ngi ko gisee ci Touba ca kanam donc boole rek suñuy liñ suñuy ñaq ak képp koo xam ne mën nga ñu si jàppale tamit ñu suqali Bambey loolu rek moo ñu tax a jóg man daal maa ngi wax waa Bambey ñu lii amul politique amul tarix amul waaso ne si ñëpp adhéré bokk parce que ñun ñoo bokk suñu Bambey voilà macha allah xanaa di la wax rek ne ki nga xam ne muy Basirou Diagne daal dina lay nuyu nee na ah, kooku suñu rakk la. macha allah mm, waaw maa koy nuyu maa koy nuyu. macha allah waa suñu grand la. Mm-hmm. soo xoolee nag dina sànni point foofu. Mm-hmm. Basirou moom mi ngi Italie mm-hmm. mën naa see lim ay centaine de personnes yoo xam ne ñu ngi Italie. dañ naan rek ku lim da ngay daal di juum ay Grote ay grand Tafa Tafaka macha allah. Euh, mën na see lim ñu bëree bare bëri mais bu ma nuyoo grand Bass euh, nuyu grand Thier.

comprendre nga di dajale sen ñak seen xalaat ak yoy kon japp naa ñun wa bambay buñu jappé ci li rek amna ay xéewal yo xamni dina joggé bitim réew di dugg fi ci bir bambay man lool la mën lumay wax di la sant yow tamit di len ñaanal di ñaanal sa directeur Modou Ndiaye di sante ñepp di gërëm ñepp daal merci beaucoup. merci beaucoup kaddu yi amna solo gis ngeen ko mbokk internet yi nga xamné ñu ngi réagir di nek en direct ak ñun jaajëfal nañ leen bu baaxa baax ku ci melni ni Pape Sall deeng nga ko vraiment vous êtes euh, en train de faire un travail remarquable remarquable yéen rek yéen a ñu tax a daal di nekk fi nee naa la suñu xëyee ci fajar daal di nelaw yi euh, ñu ngi ñëw ànd ak ñi nga xamante ñooy mën a liggéey bi waaye yéen ñi fi nekkul di daal di bëgg xam lii xew Bambey tamit yéen bokk ngeen ci ñu ñu daal di tax a jug fajar jaajëfal nañ la ku ci mel ni Bachirou jaañ Bachirou jaañ sama doom baay sax laa koy wax moom nekk euh, grand frère ci gis nga ko euh, élément boobu dem léegi Bachirou nekk ba Italie ñu ngi koy jaajëfal bu baax Pape bravo Bambey TV bravo yéen ñi toog tamit di assister Bambey TV ñu jëlaat quelques réactions rek xam naa Euh, tonton yow tamit dañ lay daal di nuyu rek ziar la bàyyi la nga présenté wu. bon maa ngi lay nuyu di la ziar man maa ngi tudd Birame Ndiaye deuxième vice président association ànd suqali Bambey. Euh, deuxième vice président ànd Soukali Bambey. Euh, nga daal di bokk ci asos bi ngeen commencé di mën a seeni activité lan ngay xaar ci Bambey. bon li ñuy xaar ci Bambey bari na et puis yaatu na. Mhm. parce que comme ni nga ko waxee vision association bi mhm. mooy solidarité mhm. union ak action. L'objectif principal bi de telle sorte que nous participer au développement économique social et culturel de Bambaye. mais pour y participer il faut un objectif spécifique objectif spécifique nous décliner à travers les commissions parce que avons une commission économique commission environnement santé cadre de vie ainsi de suite éducation donc l'OL, voilà c'est que l'Union, en même temps pour appuyer les autorités locales Mhm. comme la la mairie mooy la municipalité le préfet parce que mun mënoo fi def dara sans pour autant nga jaar ci autorité locale yi mhm. donc loolu mooy objectif ànd suqali Bambey Euh, am na solo wante ginnaaw bi ngeen xaaree bambay daal di am seen i projet bëgg ko partager ak doom bambay yi euh, nan nge ban appel ngeen di def pour ñu wuyu si leen ndax woote ñu wuyu si la dafa metti surtout bi nga moment bi nga xam ne jeunes yi ak waa dëkk bi dañoo désespéré wu ci appel yi nga xam ne daan nañ ko wuyu ji te duñ ci gis seen bopp ban méthode de communication ngeen bëgg a jël pour woo dëkk bi yëpp. bon méthode de communication yi ñu jël bari na mm-hmm. bon bi ci jiitu mooy sensibilisation d'abord mm-hmm. ensuite def massification sensibiliser le maximum expliquer objectivement lan moy objectif association parce que association yu bëri jaar nañ fi mais bi association bi c'est c'est non politique donc euh, amul séparation ni ethnie ni religion le monde qui donne parce que l'objectif objectif la moy fexé ba Bambey jëm voilà lolu moy objectif association donc ñu ngi lancer appel à tout le monde toute la population de Bambay, pour que ñu ñëw adhérer ci association adhéré ci association bi yomb na parce que il suffit nga jël jënd lu ñuy wax carte d'adhésion 1000 francs lay jar pour góor 500 lay jar pour jigéen chaque mois nga participer à hauteur de 1000 francs par personne bu dee góor ñi bu dee jigéen 500 francs voilà donc ah, moo euh, bi may lancé mooy vraiment di ñaax nit ñi surtout population bi que ñu ñëw adhéré en masse waaw te xam ne yi quand du ñu ko defaral Bambey population bi ñoo ko defar waaw exemple dans les pays les plus développés du monde ñoom ñoo développé un pays donc pourquoi pas Bambey mu développé wu parce que Bambey a les potentialités a des ressources humaines am ressources naturelles et tout donc compétences mi fi donc bu ñu jàppoo am objectif am gëm-gëm je pense que Bambey mën a dem ci kanam. Eh, kàddu yi am na solo jaajëfal nañ ko suñu tonton boobu nga xam ne gis nga ko mu ngi bokk ci bureau ànd sukkali bambay ba tey gis ngeen ko nee naa la association bi dafa daal di tëddee njaaxaanaay yemul ci doomu bambay yi daal di nekk ci bambay waaye nee naa la doomu bambay yi nga xam ne dañu nekk ci diaspora bi partout dans le monde fu waay nekk rek te nekk doomu bambay bëgg taxaw ci ànd suqali bambay wala ànd liggéeyal bambay eh, boo ci daal di ñëwee rek gis sa bopp dinañ jël réaction benn élément boo xam ne mu ngi nekk ba Nigéria waaye dooleem ak kàddoom moom daal di taxawul benn yoon ci association bi dañ koy daal di dalal rek moom tamit mu daal di ñëw ginnaaw ba mu nekkee Niger di nekk fii aussi Bambey tey gis ngeen ko événement bi mu daal di koy partagé tey direct nii ak euh, Bambey TV ak ànd suqali Bambey tonton dañ lay bàyyi nga nuyoo rek euh, daal di ñuy wax ban poste nga occupé ci ànd suqali Bambey. non man moom maa ngi leen di jaajëfal di leen ziare bu baax waaw di nuyu waa Bambey gépp rek nga xam ne lii moom tawféex la quoi je pense que ñun amuñu loolu Bambey. même fépp fu mu mënti nekk ci àdduna tamit bon dañuy liggéey fu Bambey parce que Bambey suñu fierté la quoi man nag man maay jëwriñu jigéen ñi moom jigéen ñi moom ah samay loxo lay nekk maa ngi di conditionné ni pour ñu jàpp ci liggéey bi parce que bon liggéey bi moom daanaka ñi jàpp rek je pense que dara du sotti parce que man dama gëm jigéen parce que même fee ma nekk au Nigéria daanaka ci jigéen daanaka teranga joo mënti am jigéen ñi ñoo ma ko mën a jox parce que man fashion designer la jigéen ñi lay liggéeyal te dama leen a gëm xam ne lépp lu nu bokk lu ne suñu boom da ciy def tawféex moo tax daanaka maay seen jëwriñ di leen pour Bambey jëm ca kanam parce que li ñuy def nii dafa nekk loo xam ne maanaam vraiment bëgg sam réew mun ko weesu parce que ñu ñoo bokk ndey bokk bay bambay suñu Bambey la buñ ko defalul keneen duñ ko defaral kon mieux vaut ñu teel koo tàmbali xam nga bu njëkk souvent ni dañ daan toog di critique di xuloog yooyu dañoo dépassé moment boobu noonu ñun dañoo war a jëkk pour defar bambay te bu nu booloo suñu borom mu ñu defal tawféex ba loolu mën a jàppandi kon nak il fallait que ñu joxante loxo rek bokk nday bokk bay fas yéene liggéey té yalla yoon tax parce que képp ku nekk outside country ya ngi xalat sama réew danaka man bon bo xolé man dama ñibi définitivement pour bambay lépp luma am indi naa ko bambay te inshallah rabbi ci kàttanu yalla suñu borom dina defal tawfiq ba lépp lu ñu bëgg rek suñu borom mu ci tek loxo ñun fi lañ am fi mo suñu fierté lu ñu doon fi la comprendre nga kon nak yalla ñu yalla jappalé rek li ñuy def nak bon ñepp ci wara japp dom bambay ku ne rek war nga ci mën a jàpp parce que yow lañ koy defal marché baa ngi nii xoole ni mu meloon génn nañ mbalit mi bale ko mu set lundi je pense que bu gars yi ñëwee gis liggéey bi danañ xam ne fii am ñu fi jaar ñoom lañ ko defal ko kon nan bokk ndey bokk bàyyi fas yéene liggéey dëkk bi comprends nga gouvernement bu defee wàllam ñun am na ñun war comme la mën a wax gars yi rek ne man bon li ma war a defal sama réew laay xalaat mhm. pas lu ma Sénégal war a defal parce que Sénégal defal ma lépp man ñëpp xam na ma kon sante yalla kon nak dama taxaw pour defar Sénégal comprends nga participer quoi mhm. loolu moñu war mhm. kon nañ gëna a góorgóorlu yéen dama leen di jajeufal parce que tamit vraiment yeen a ngi jàpp ci liguey bi té ni la mhm. lu mu metti metti metti metti fi ngeen am kon bo leen di tàmbali tàmbaleen fi da ngeen xamné ci kanam tuuti rek ñëpp dina leen dégg partout dans le monde liguey nak xagne day soxé waye ci kanam tuuti rek suñu boroom ne defal tawfiq lepp jaar yoon bak sin fallu maa leen jajeufal bu baax a baax surtout suñu waa ji moom ñu ngi koy ñaanal DG xaw ma DG kilifa la te puis vraiment dañ koy ñaanal taw feex rek comprendre nga suñu borom barkeel liggéey bi ci kàttanu yàlla yonte bi parce que lii moom daanaka suñu fierté la quoi man nag maa ngi leen di jaajëfal daanaka wax mu ne ma ko waaye sëñ Tuubaa Cheikh Rafa rek. waaw kàddu am na solo gis ngeen ko mu daal de bokk ci ànd suqali Bambey waaye nekkoon fi nga xamante ne ni mooy Niger malgré lu muy sori sori mu ngi doon participer jaajëfal nañ leen ba tey ci mbokk internet yi nga xam ne rek dañuy daal di am seen i réaction en direct ku ci mel ne xalil Diouf Khalil gis nga ko Mbaye Babacar gis nga man may répondre sa question moom nee na ndax Bambey TV gis ngeen ko dinañ dem ci yeneen localité yi rek pour di xam situation yi fa gis nga ko Babacar soo ñu contacter rek ci page Facebook Bambay TV wala nga woote ci 77 696 45 57 fépp waay nekk ci Sénégal ci àddina rawatina ci Bambay ak événement boo mun di am soo ñu contacter dinañ daal di ñëw teewal la fa partager la ko ak doomu Bambay waaye partager la ko ak waa Sénégal ak waa àddina yëpp ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax dinañ jëlaat beneen réaction rek pour ñu gën a mën a continuer li nga xamante ne dañ koy amal sëñ nuyu nañ la nga daal ci ànd mbay eh, ginnaaw boo présenté woo rek nga wax ñu nan nga ciy dundee ci biir. maa lay fay bu baax a baax a baax eh, man eh, maa ngi tudd Fallou doon président benn association JCB te ñu woon ñu pour ñu ñëw jàpp ci liggéey bi ànd ceeg ànd suxali Bambey ñu doon benn association boo xamante ne tamit mu ngi def lu am solo ci dëkk bi parce que lii nii dafa bokk ci set te tamit boo xoolee tey li génn ci marché bi ak li génn tey ci Bambey bëri na trop. kon euh, lii baax na trop ci dëkk bi ñu ko fii gis ay association di ko def parce que lii lañuy xaar ci association yi ñuy def euh, ay euh, bonne volonté di ci bañ a xaar kenn parce que fi ñu toll nii dañu toll foo xam te ne jaratul ñuy xaar kenn nañu def te xam ne état mënut a def lépp parce que boo xoolee man mi di wax ak yow suñu association ñu ngi wàcc immigration le 31 décembre monument ak place publique incha allah ñu bëgg nag waa Bambey gépp ñëw yéen wax ne lii la ñuy xaar ci association yi daal dégg nga ko sëñ Fallou mu nekk jeune daal di nekk président benn asos dégg ngeen ko waaye comme dafa gis ne waa ànd sukkali Bambey ñu ngi def liggéey bu am importance fii ci département bi mu daal di ñëw moom tamit ànd ak asosam rek fekk si leen euh, ni nga ko waxee léegi nga ne 31 décembre yéen a ngi préparé ñu defaale leen pub rek euh, suñu DG dina leen ko may waaw gis nga ko dinañ fa daal di ñëw tamit euh, waaw dinañ fa daal di ñëw def ak yéen plateau boo xamante ne nii ngeen daal di lancer message boo xam ne pour jeunes yi la mais pour ñu roy ci yéen daal koy def ci kàcce quartier yi lan ngay wax sa mbokk yi pour ñu daal di ñëw bokk si ci association ànd suqali bambay ndax mu gën a dëgër. waaw association ànd suqali Bambey moom gars yi dañu war a ñëw bokk ci ñëw adhéré ci comme euh, ñun ñi nga xamante ne ay partenaires lañ ak ñun parce que ñoom association lañ ñun tamit association lañ di wax ne lii la ñuy xaar ci association yi nañu wane bonne volonté yi ñu bàyyi wax ji te liggéey parce que ku ci nekk boo dajalee sa 100 francs 200 di nga mën a rapporter ci dëkk bi loo xamante ne doon naka ñu ngi ko xeeb samay dina jëriñ dara pëlu mbalit yii nii pëlu mbalit seeru 1000 francs lay jar pourquoi association yi mun ñu cotiser 1000 francs 1000 francs côté bu nekk nga xamante ni nit dañ fay jaay ñu def fa benn pëlu mbalit ñu bàyyi wax ci te liggéey loolu moo am solo daal wane bonne volonté yi. jaajëfal nañ ko Fallu gis nga moom tamit am nañ réaction Lay Diop depuis Italie Lay ñu ngi lay jaajëfal mu ngi ñuy daal di defee signe depuis Italie jaajëfal nañ leen mbokk internet yi ngeen daal di dugg rek ñuy am seen réaction ba tey jeexagul dinañ leen continuer ba tey ñu ngi ci alentour marché bi ànd suqali Bambey ñooy daal di amee liggéey bu am importance bi ñu jëlal leen yeneen image

gis ngeen ànd sukkali bamb yi gis ngeen liggéey bi ku nekk xam na ne marché bi daal di noonu na tilim trop trop trop ngeen gis ne ñu ngi dugg di xëcc mbalit yi ruq yi salte yi macha allah liggéey bi am na solo képp ku fi jaaroon démb rek soo fi jaaraatee tey di nga gis ne euh, am na ñu fi jaar mais tamit jaare nañ fi ak xol waaye tamit jaare nañ fi ak yéene bu baax a baax a baax ba tey mbokk yi rek ñu nekk fépp rek tey daal di suivre Bambey TV bokk ci internet yi mën nañu réagir rek jaajëfalaat nan gis nga ko laay jóg moom di ko ziar eh, gis ngeen ko liggéey bi am na solo am na solo trop yéen a ngi koy gis en direct nii eh, ànd ceeg Bambey TV gis ngeen ñi nga xamante ne ñooy comité de santé bu district sanitaire bu bambay ñoom tamit daal di nañ fii ñëw ñëw fii daal di jàppale si ñi nga xamante ne mooy association ànd suqali Bambey bi gis ngeen leen nii ñoo taxaw nii daal di def seen délégation tamit euh, ñoom tamit euh, comme que district lañ nekk lu jëm ci wàllum set da leen di ñeewal euh, képp kuy woote ci lu jëm ci wàllum set rek ñoom foo nekk dañ lay daal di ñëw jàppale waaye dooleel la ñoom tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax xam nañ dinañ ci jël quelque réaction rek boo xam ne gis nga ko nii daal di nañ ñëw indi li nga xamante ne nii ay ndox la daal indil association ànd suqali Bambey ñii def lii nekk ci comité de santé bu district sanitaire de Bambay, euh, ku nek xam na né hôpital mom euh, ci walum set seen yëf la dañ ci dox bu baaxa baaxa baaxa baax kon ñom tamit ñu ngi leen di jaajëfal rek rafraîchissement boo xamante ni ñoo ngi koy taxaw waxtaan soxal Bambey Karim nag kon Karim ñoo ngi lay bu a ba jaar kenn sàkku na gàcce ba tey comme niñ leen ko waxee ci association ànd suqali Bambey liggéey bu am njariñ bi nga xam ne ñu ngi koy daal di def tey le 6 décembre fii ci département bi waaye amal ko plus précisement ci marché bu Bambey ngeen gis ne tilimoon na torop ak mbalit yeek ni meloon waaye ñu ngi ci depuis ce matin di liggéey liggéey bu am solo bi comité de santé district sanitaire bu mbay ñoom tamit kenn demul ñu bale ndax boo waxee hôpital rek munoo cee génne set ndax foofu la commencé gis nga leen euh, deux éléments daal di cay jugee ci comité boobu daal di ñëw jëmmal ñi nga xam te mooy association ànd suqali Bambey waaye indi leen ay ndox jàppale leen ko dañ ciy jël réaction rek ki ma dendal muy tonto Karim ginnaaw ba mu rafetloo liggéey bi ba pare lan la leen di gën a ñaaxaat tonto Karim ñu ngi lay nuyu. waaw ah, di nuyu suñu président ak l'ensemble des membres du bureau ànd euh, Suxali Bambey bi nga xam man aussi ci la bok en tant que président commission santé vraiment action bi nek action bu ñuy rafetlu parce que euh, niko président di waxe rek ñun ñoy défar suñu gox et que li da kay woné parce que tay euh, set dafa bok ci li nga xamante tane moy premier facteur de développement tay buñu togué waxtan waxtaan ñëpp mobiliser wu ñu génn ñew pour setal sunu dëkk setal sunu marché kooku damay wax ne kenn warul toog sa biir kër war nañ ci def sunu doole war nañ def sunu alal def ci sunu temps kon vraiment ñoo ngi euh, remercier vraiment And Suxali Bambey di leen encourager di nuye waat sunu partenariat avec le comité de santé bi nga xam ne ñun ñoo ko représenté ma ànd ci ak le trésorier général Assane Badiane di leen wax ne on est prêt à vous accompagner ci lépp loo xamante ni yëkkati nañ ko de Bambay tax pour l'entrée de Bambay. vraiment président on vous remercie on est derrière vous aussi à vous soutenir dans toutes vos actions Il nga a qui mettre en œuvre pour le développement de Bambay. Je remercie aussi Yen Bambay TV aussi ci en euh, taxawaay parce que yéen tamit yéen a au Japon. Hein. vraiment merci beaucoup amoon na solo gis ngeen ko loolu moo doonoon teewaay bi nga xam ne comité de santé district sanitaire bu bambay daal dina ñëw jàppale ko ñi nga xamante ne nii ñooy asos bi mais gis nga dañuy daal di ñëw ci ki nga xamante ne mooy président moom tamit rek daal di koy jox kàddu gi ginnaaw geste bi bi ko comité de santé bi daal di defee ba pare moom lan la ciy daal di sànni rek. waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen waa sunu mbokki Bambey yi ak mbokki ànd suxali Bambey eh, ñu ñëwoon tey jii le 6 décembre ci set dëkk bi.

léegi nak ma ngi ñaax ci mbokki bambe yi maanaam boo gisee ñuy def Touba ci kanam euh ni mu amé doolé manam social la na ci ñepp japp bambe gi itam dañoo waxon ne nañ ko def bambe ci kanam mais finalement nañ ñu ne nañ ko def and suqli bambe yi loolu nag ñun ñepp ñoko bok képp ko xamné ne ki doomi bambe yi nga même ñi dëkkut bambe sax tay liggéey ci bambe wala ñu nekk bambe ci lañ bok ndax bu dëkk bi doxé ñun ñepp la doxal comme ni ko président Macky Sall waxé sax né c'est à redire euh, koku lolu lañ bëgg ci bambe yi moo tax tey jii ñu àndandoo di di di di di di di seetal dëkk bi bu ñu jógee ci it def beneen action ndax suñ première action moo nekkoon euh, reboisement yi ñu doon def yàlla dimbali nañu ba boobaak léegi garab yi ñu jëmbatoon yëpp benn deewu ci li ñuy def it yàlla dëkk bi naat gën a rafet loolu daal mooy sunu sunu yéene bëgg nañ nag kur yi ñu garaate ko def ci garaawaay def ci suuf gi ngeen jëli suuf yaa nga ne maasale ko ku fi jaar doo fakk talu oto yi fi jaar mën a dem mu rafet ci ñu ngi leen gërëm nag yéen Bambey TV

si merci beaucoup gis ngeen kàddu yooyu nga xam ne kii mooy président daal dina ko amaloon ba tey dañ leen di jëlal image rek di leen wax mën ngeen a daal di réagir mbokk internet yi nga xam ne yéen a ngi ñuy suivre partout dans le monde ñu daal di leen nuyu rek jaajëfalaat leen ñu jëlal leen image ngeen gis nan la ñuy def ak liggéey bi ñuy amal pour daal di génnee fii nga xam ne mbalit bi mu ngi fi xanaa sama caméraman ngañ sama caméraman bu xarañ boobu rek daal di tourné jëlal leen image ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ Michelin. gis ngeen niñ leen ko waxee rek eh, gis ngeen ne ànd suqali Bambey ginaaw liggéey bi nga xam ne mu ngi koy mënee depuis ce matin ngeen gis liggéey bi am na solo marché bi daal dina salte woon trop ngeen gis image yi léegi ñu di leen ko woon bu ngeen gisee ni ni xëccee fii ci biir nga xam ne comme si mën nañ ne eh, bu doonul woon ànd suqali Bambey mbalit bii du fi jub tey ñu daal di jëfalaat équipe boobu bu baax daal di taxaw kenn koo xamante ni autorité la ci biir Bambey gi nee naa la nekk ndax autorité doon ko ba pare fay des boo nekkul leader leader mooy loo fekk rek dëkk bi daal di koy def nga xam ne lii ci développement wu dëkk bi la wala lu koy jëriñ nga daal di ñëw participer ca ginnaaw buñ ko jaajëfale bu baax dañ koy bàyyi mu baal di présenté wu ndax waa may gën a xam mooy kan ginnaaw bañ ko xamee ba pare nuyu nañ la sëñ bi waaw soxna si maa ngi lay fay di sant yàlla bu baax di wax auzu billahi mina sheytaani rajim euh, julliti Seydina Mouhamed alayhi salaam di sant euh, sunuy wayjur di sant waa ànd suqali Bambey eh, bi nga xamante ni membre laa ci euh, lu jiitu ñuy bokk ànd suqali Bambey nag dañuy yëngu ci wàllu politique bokk ci parti bu ñuy wax président euh, bokk gis-gis la convention démocratique bokk gis-gis bi président Pape Diop jiite mu nekkoon ancien maire de Dakar ancien président et de l'Assemblée nationale et du Sénat donc ñu dëkk Bambey nak juddo fi yaro fi dëkk fi amuñu kër ndakaaru amuñu ko bitim réew donc suñ borom dogal nu am ko fi donc lepp luñu ñu buñ ko défé mbaa ñu taxaw ca dëkk bi gëna dem dox ay jéego jëm ca kanam lolé dañ cey nekk biñuy nekk jeune amul mouvement de jeunesse bo xamanteni dugalun ca sun loxo parce que boba jot gi may nan ko bi nu tay ba suñuy at rombo ak ti jeunesse aussi ñi ngi dox ci yenen wal loolu lépp nag li ko sabab rek mooy li ma wax mooy que tey dañu bëgg Bambey dox ay jéego dem ca kanam mel ni yeneen dëkk yi ba bu ëllëgee képp ku fi ñëw xam ni cadre de vie bi changé na niveau de vie nit ñi changé na loolu nag ànd toog toog sa palace toog sa néeg toog sa taatu ker di naan sa ataay lijjantiwu ko yu mel nii moo koy lijjanti wolof dafay wax ni taal bu të tàkk wet gu na nga koy xambe donc nun ñi daja tey kenn ku ne amon nga xajna yitte fenen mais bàyyi nga sey yitte ñew tew loole nak bambe do nga ñuko jaral parce que amunu lu dul nit ki fa yalla dogal nga juddo fa donc gëm na ni amo lu gën lolu te alhamdulilah bi eh, conscience yi commencé yeewu ci walu waw parce que eh, ab dekk ñafa dekk ñokay défar kenn du joggé bitim réew mba dakar ñew din ko défaral ñi fi dekk di fi yewoo ñokay défar man bokku na ci ñi gëm lolu boko gëmé nak da ngay da ngay laxasaayu ba ku ñëw di la dimbali fekk nga teg sa loxo donc loolu daal ginnaaw présentation bi mënu naa ko ci dugal di sant bu baax a baax nag waa Bambey TV waaye man ma di la laaj benn question rek mooy ngay daal di yëngu ci wàllu politique mais bi nga gisee ne mouvement bi tamit ci luy développer Bambey rek lay taxaw nga daal di ñëw intégré wu daal di bokk lan ngay wax sa mbokk yi ni nga xam ne dañuy politique te bokkuñu ci gis-gis bi ni nga ko amee nii lan nga leen di wax pour xëcc leen. waaw loolu dafa war ku nekk comme li ma wax rek nit ki amut lu gën fa mu juddoo. doomu aadama lu mu la ak loo mën a doon mhm. boo demoon ba nekk président de la république mënoo am lu gën fa nga juddoo mhm. donc te fa nga juddoo fa nga dëkk man nga am cosaan feneen nag mais fa nga dëkk juddoo fa donc loolu da nga ko war a teg au premier plan mhm. yàlla seere na ni André Soxole Bambey bi laata ñuy installer sax bureau yi euh, ñi ko ŋànkan mouvement bi de manière provisoire ñëwoon nañ seet si ma ba ñu ñëw dama leen man dama yëngu ci politique te ku yëngu ci politique dafay am noo xam ne noonu ngay doxee donc lii mouvement apolitique la nan ko bàyyeeg ñi politique ut man nag damay politique te nëbbuma ko parce que boo ko defee nag bu ëllëgee boo mënee indi jàpp ci mbir mi mu gën a dox comme mooy li ñu def nii nëbbu nu suñu kasket ci loolu la ñuy dox ñi ñoo xam ñëpp xam na ni ci loolu la ñuy yëngu waaye lii nag dafa dépassé cadre boobu mooy que ñun fi lañ juddoo amuñu lu gën Bambey donc ñeneen ñi nga xamante ni ñi ngi nekk ay responsable tay bokku fenen di yëngu kenn ku ne war nga ñu mëna ñew tek sa loxo bu dul dara sa nga ñew tew nit ñi gis la xamni li ñor na la mhm. parce que xajna amna liggey fu muy tollu mhm. borom kattan ya koy déssé ndaw ñu ñokoy déssé dese mhm. nak ndaw bu dee di yëkëté ka tek day day am mag mu ne ci wétam diko gungé gunge ñaanal diko conseiller donc lolu moy euh, waral sunu présence fi donc ñuy lancer appel ci responsable yépp fu ci waay ne rek ka war a mën a ñëw en tant que doomi Bambey en tant que ku cosaanoo Bambey en tant que sax ku bëgg rek Bambey dem parce que nit mën na fee bañ a juddoo mën na fee bañ a cosaanoo te teraanga am nekk fi mu di fi jël gëm ba ëllëg mu samp fi kër jur fi njaboot loolu dana am ñooñu kenn gënu leen fay dëkk donc nous lançons un appel à tout le monde à tous les responsables de quelque bord qu'ils soient à venir vraiment soutenir l'action de Anne Sopalé Bambay. gis ngeen ko kàddu yi daan nay am solo dañ koy jaajëfal rek gis nga comme ni ma leen ko waxee ci commencement bi non seulement politicien la non seulement waaye leader la tamit ndax boo déggee propos yu am solo yooyu nga xam ne yëkkati na ko képp koo xam ne fépp foo mën di nekk rek waaye nga nekk doomu Bambey wala nga dëkk bàmbay ak loo mun di yëngu rek ñu ngi lay woo yow tamit nga daal di ñëw jàppale mouvement bi jëmmal leen comme ni mu ko waxee euh, doole mooy liggéey xale mooy yor doole waaye tamit dañuy soxla ñu mel nii ci suñu wet mu di ñu gën a encouragé di gën a motiver ñi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain ñuy daal di gën a dépenser énergie ba tey beneen élément daal di nekk sama wet rek ginnaaw buñ jëfalee monsieur le maire moom tamit dañ koy bàyyi mu présenté wu rek Mame Bara euh, mu daal di présenté wu rek daal di wax moom tamit euh, nan la daal di bokkee ci ànd suqali bambay ba bokk ci liggéey bu euh, am solo bi nga xam ne ñu ngi koy amal waaw dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin Eh, di sant yalla bu wér a wér di julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam eh, di len sant yeen bambay TV sha allah eh, ci li nga xamanteni ni nañ ko di def yeen ci ngeen bok ndax depuis bañ commencé ba léegi lepp luñu bëgg a wone rek wane ngeen ko ñi ngi sant ñepp nak di gërëm ñepp di wax ne and suqali bambay dafa wuyu bopam manam dañoo wo ñepp bayiwuñ kenn mo xam ngay politique mo xam ak lo mën di doon ak fo mën di dëkk te dëkk bambay rek ñi ngi lay wo Euh, di di sant nag euh, mbay ñu ngi koy sant Mbaye Mbaye Touré ñu ngi koy sant bu baax a baax euh, di ko gërëm parce que tey dafa summi mbubbu politicien sol beneen mbubb boo xamante ne mbubbu ku dëkk Bambey mbubb koo xamante ne d'abord dañoo bokkoon nekk ay gone mbubb mu mucc ay daal la sol tey parce que lii mu def defe naa ne képp koo xam ne da ngay politique war nga ko def parce que ñu dañoo woo ñëpp man mii di wax ak yéen damay damay politique waaye dañ ne ànd suqali Bambey politique taxu koo jóg bo ñëwee dafa mel dem jakka bo ñëwee da ngay summi say dal ci biti bo jullé ba nopi sala say dal dem sa yoon wala loolu loolu moy ànd soxali bambay euh, vraiment taxawayam rafet na trop wax ji mu wax aussi machallah allah na ayib ñuy wax ne and soxali bambay boko xolé sax diaspora bi ñoko ko ñi nga xamanté ño nek ci bitim rew ño tok xalaat ne ñom kat nekkuñu fi waaye bambay kat la fa warona am yépp xeyna na na djégo yi dess na ñu ne ah nañ jog nak and ñun wa diaspora bi and ñun wa bambay ànd ñun ñi nga xamante ne d'abord Bambey nañ dëkk te nekk ci biir Sénégal ñu àndandoo bañ ne maire bi rek moo fi nekk wala préfet bi moo war a def wala diw moo war a def wala diw moo war a def ñëpp ñu defandoo. parce que loolu mooy mooy mooy mooy mooy li nga xamante ne d'abord moo ñu mën a yóbbu parce que bu ñu nekkee benn say ku ñu yenu yenoo noonu ku ñu wàcce tamit dañuy wàccandoo loolu mooy mooy mooy mooy mooy philosophie bi. Euh, di sant aussi comité de santé bi parce que euh, vraiment am na war nañ leen sant bu baax baax parce que dañu wax ne dompat sax ci sot la bokk. yaa may dégg xalaat nañu xalaat bu rafet bu ñuy def ay réunion tamit ñoom dañuy jox seen salle gratuitement ñu ñu ñu dem fa comme ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm parce que loolu ci suqali la bu ñu nee rek lépp la euh, lépp la la yëkkati dañuy ñaanal ñëpp moom mi nga xam ne dafay politique wallaay lazim lépp lu mu bëgg ci politique dama koy ñaanal yàlla may ko ko parce que bu ko ko mayee man la ko may bu ko mayee bambay la ko may man damay wax ne toujours politicien boo xamee man sama carte moo lay xañ bu ku dëkk Bambey sama carte moo lay xañ nga nekk maire wala nga nekk leneen di nga ko nekk ndax soo ko waree jox rek ma jox la ko mais lii nag dañ koo def mu nekk loo xamee vraiment lu sedd xol la ñun waa Bambey ñu bokk ko euh, may tey nag xaw naa rus tuuti nag vraiment pour muy leer tey rus parce que dañoo woo waa wa ne sais wara génn jeunes yi aussi ñu ñu fàttali leen ne lii ñuy def pour lañ parce que ku dem ba jël ay juróom fukki wala juróom fukki ak juróom xam nga ne looy def sa bopp taxatul nga di ko def kon nag jeunes yi nga xamante ne Nous ñoom ñoo ci toll nañ ci nañ ci nañ ci nañ ci eh, nañ ci ñëw di ci vraiment parce que seen taxawaay mucc na ayib jigéen ñi ñëpp ñëw nañ yaa dégg loolu uh, dafay wane ne wax dëgg yàlla uh, lii ñuy def intéressé na leen kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam fanu gudd gu wër ak xéewal yu sawan bawan di fàttali ñëpp rek comme ni ko alxuraan waxee fa zakir fa ina zikra tanfa'ul muminin képp ku njëkk a yeewu yeewul sa morom képp koo xamee tamit dangaa njëkk a ko defal ne sa mbokk fàtte na nga fàttaliko ñu xam ne Bambey ñun ñoo ko moom benn bopp la kenn mënu koo xar li may wax rek ne buñ ko doon séddoo ma jël sama dem waaye comme mënuñu koo séddoo sama wàllang fi du ma ko bàyyi kenn moo tax lu ñu woote lu nekk dinaa ñëw dañuy wax sax ne baa baara paaka ñaari boor la fii la far fee la far ma ne man faruma fenn Bambey laa far ku woote Bambey ci njëkk ak taranga ma ñëw wuy si la jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah macha allah am na solo dégg ngeen kàddu yooyu nga xam ne daal di nañ koy yëkkati ba tey dañuy continuer rek di leen jëleel image bi ndax jeexagul ba tey ñu ngi ci liggéey bi gis ngeen fii ni mel macha allah ñu ngi ci liggéey bu am solo bi jëleel image rek sama caméraman bu ay boobu ñu naan ko ngañ maa ngi koy jaajëfal bu baax. abandonou o 可以，就叫我们，嗯，吃了呢，都散了，走吧。 ami kaay lekk si démb ami kaay lekk si démb waaye kaay lekk si dem kaay lekk si dem ah man bëgg naa faa dem de.

हल्का हल्का का मैं भी करके maar je weet wel hoe jàngale si àddina ñu mel ni Bamba ma ne day wax ñu dañ fi aqui da boca. Me decidei nesse ensaio. demoon Dakar rek balaa may dem Dakar dama doon dem ci kër gi waaw wàññi ma dematuma sa kër ba booy bi ñëwaat dewuma sa kër dafa demoon ni ko ay jàng waat Gracias. Vai, é. mu yéeg yaay noo def ak jàmm très bien jërëjëf ba tey ba jërëjëf ba tey jërëjëf monsieur le maire kontaan nañ ba tey kontaan nañ kontaan nañ. yow daal dañuy bàyyee dañuy bàyyee jël leen yëpp. waaw waaw waaw kontaan nañ jaanul dem gën bëgg a incha allah loolu ma dina. jërëjëf. gaa yi não dugg ci biir não bi. na leen não bële ñenn ñee. não doo ko woon não ñëw ñun ñu não ñu nga ñëw. não fii la ñee não ñu ñëw Malick não ñee la ñëw não Malick Mboye ñu não fa ne. dañuy não groupe de fay. não da ngeen dem não mais banderole yaa não banderole yaa ngi não man banderole man não bi. waaw ñoo não jëlee foofu indi não fi. nee não ñu ñëw de. não ok d'accord. yore cent franc ba biram kenn foofu cent franc moom moo tudd sama jakarta wala fukki dërëm quoi waaw tal baal ma de maa ngi léegi ñu léegi daal ñun bale nañu fii ba pare gars yi ñoom dañoo dugal benn programme ci seen affaire daa ma woo léegi ne ma da nga fa war a dem quoi. waaw waaw dañoo benn programme bu ñu mën seen affaire. ah ñàkk mais léegi dama ko war a il a fallu que ma woo as pour mu quitter Diourbel. waaw pour ma convoyé leen parce que bu leen convoyé gendarmerie dañuy jàpp ci yoon te dañu sonal quoi. ndara ma sonal as bi mais c'est sûr que ñoom bu ñu ñëwee parce que ñaari seize mètres la. seen chance mën nañu at mbalit mi ba pare. léegi aussi affaire grave parce que quelques matchs yu grave dañ ko def ci terrain est-ce que ñoom soxlawuñ ko waa waa MPD boobu bu ñu defee point de presse ba pare le temps que camion yi ñëw ñu dem ci mag commandé bu fekkee ñoom mën nañu ko may ñu sinon ñu travail pambo bi rek dina am fii rek mooy priorité bi véritablement fii daal bu ñu ko defaroon ba mu normal ñu def ci affaire yi. yeneen artères yi moom mën nañ ko nang nang waaw aca nan def fële ana ana ban andi fële na xanaa ñu ngi tànn foofu axe boobu lañ fay tànn lañ faa tànn nañ dem fële ci marché bi ubbi waaw kii mbooloo bi fan lañ nekk fi ñuy liggéey fi ñuy liggéey moom moo gën a baax dañ dem foofu takkaay dañ koy téye nii rek ñu taxay dañ koy dem ah Babacar dañ koy tax aca na ngeen dem def point de presse waaw. am nga crédit pour woo Ndiaye. waaw maa ngi crédit. woo ko. gën na woo. tegal woo ko ba ñu am sa njëriñ. Thank you. amit saa boo ko jotul nga ñëw def ko rek. Bira. Bira. Bira. puus maa ngi rek. di pare commencé gu ma sax. am fàttali yang ngi direct sax. know. day jël. ñëwal ñëwal Ah, du feeñu kay da ngeen a jël lépp. lii kay dara feeñu lii ñu ngi ci sama gaay yi. waaw waaw yéen yéen sama gaay yi mënoo leen arrière yéen. jigéen ñi du bokk dañoo puuca def la mu yaatu seen salali dañuy fay ñaari rek mooy fa wala ñu pousse Test. Test. ngeen ngeen déglu waay s'il vous plaît waaye ca ngeen déglu nag pare nga wax ma ban ngeen introduire

tey jii ñu ne kon nañ and suqali Bambey ñew def nettoyage def and set setal Bambey lool nak ñoo leen ci gëreem yeen ñëpp ndax wax yaa taxaway bi rafet na alors bo gisee sax ñuy wax suqali and and ah, suqali Bambey initiative bi mi ngi jógee ci suñu mbokki diaspora bi suñu doom ju nekk Côte d'Ivoire ñu ñuy wax Ibou Thiam moo yor xalaat bi and e, koog waa diaspora bi yépp nag waa États-Unis waa Italie waa Brésil waa Nigeria un peu partout euh, di ñëpp nag di doomi Bambey ñoom ñëpp nag dañu àndandoo euh, ak ñun ñi dëkk Bambey ñu ne nañu def comme genre Touba ca kanam ñun defuñu Touba ca kanam waaye dañoo def ànd suqali Bambey loolu nag dañuy lii day suñ deuxième action waaye am na ak yeneen ak yeneen yu ne ci suñ kanam li ñu gàllankoor rek mooy dañoo amagut récépissé tey it ñu ngi ñaan ñi yor loolu ñu jàppale ni ci mu gaaw a génn ñuy sant ñëpp nag di gërëm ñëpp. Euh, ñun ñëpp nag àndoon ñu di xàccandoo di doorandoo ndax bu ngeen gisee mbooloo mi ni ñu ànd tey mooy ñoo moom suñu dëkk te duñ ko génn kon dëkk bi lu ci baax ñun ñoo ko mën a baaxal lu ci yàqu ñoo ko mën a yàq bu ko defee dañuy jàppale it ñi nga xam ne ñoo yor dëkk bi di kilifa yi yor dëkk bi ñun lii ñuy def ñoom ñoo ñoom ñoom war na leen waaye ñu dañ leen di jàppale kon ñuy ñaan lu ñu bëggati def ci dëkk bi te mooy lu baax loolu ñëpp bokk nañ ko ànd def ndax social la loo xam ne ñëpp a ko bokk bu dëkk bi seetee ñëpp la seetal bu ndox mi neexee ñëpp la neexal kon euh, ñu ngi taal suñu loxo ñëpp daal mbooleem ku dëkk Bambey daal ñu ngi lay ñaan nga ñëw jàpp ci liggéey bi ñu ànd defar suñu dëkk loolu daal moo nekkoon li nga xam ne moom laa bëgg a wax jërëjëf. waaw dafa bokk ci li nga xam ne lislaam moo nu ko jëkk a digal ndax mënuloo wér mukk te setoo set dafa bokk ci neexam nga xam ne mooy suuxa euh, dund ruug doomu aadama nit boo setut sa dara du set. kon ñu tàmbali ginnaaw nawet bi moom danañ jëmbat ay garab garab it dafa am solo eh, deuxième action yi muy set ndax set yàllaa ko jëkk a digle boo gisee jullit yi ñu ne dangay ngay julli julli waxtu yu juróom euh, waxtu wu ne nga jàppal ko loolu yëpp ci set la bokk set dafa bokk ci li nga xam ne mooy dundal nit mooy wéral nit eh, surtout jamono bii nu toll nga xam ne mbas dafa am ñu digle raxasu euh, ba tey set ci biir set lañ ne rek ndax set rek moo ko fi mën a jëlee kon yàlla nañ yàlla jàppale ba jàngoro yi am ci adduna bi yëpp yàlla jëlee ko fi bi jaaye rasulillah yàlla man na ko yàlla na ko def maa ngi remercier maa ah waaw dëkk bi moom mënta set à cent pour cent euh, bu set set na sax waaye nañ gën a setal rek waaw dëkk bi moom set na waaye nañ gën a setal waaye set à cent pour cent moom jafe na euh, boo defee mooy loolu dañ ci dugal suñu loxo ndax eh, ñoom ñi ngi def li ñu war li leen war waaye lépp mënuñu ko il faut que nit ñi jàpp ci ndax boo gisee ñoom ñi jiite réew mi sax lépp mënuñu ko lépp moom yàlla rek ko man waaye nag ñun dañuy fas takk suñu ndigg àndandoog jigéen ñi ak xale yi ak mag ñi defar suñu dëkk ndax kenn duñ ko defaral ko dul ñun ndax dañuy wax solidarité union solidarité action mooy li nga xam ne moo mooy moo moo nu tax a jóg action yi nag dañ koy waxtaane ndax yëf moom du kenn mooy décider ndax dafa gunu benn action boo xam ne bii dañ naan accam waaw bu ko defee dañuy yaakaar nag ay ñu nu ci jàppale nag ay partenaires yu nu ci ndax li ñu war a def lépp Bambey bari na bokk na ci indi ndox mu neex bokk na ci yeneen ak yeneen santé mi ngi lépp a ngi ci ah santé ngi ci lépp a ci te bëgg nañoo participer ci mouvement And Suxali Bambey ñu na adhéré pour adhéré yomb na ndax And Suxali Bambey eh, ñu ci bari ci ñi dëkk ci réew mi te ne ci àll bi bari na ci ñu bari ñoo xam ne bokk nañ ci groupe bi ndax dañu am groupe boo xam ne groupe whatsapp la ñu bari ñu ngi yónnee seen i alal ak seen i idée am na ci yu bari yoo xam ne sax ñi ngi koy bëgg a def mais amaguñu euh, récépissé pour mën koo suqali sinon am nañu ay partenaires yu am solo yu am solo nag. yo xamné ñi ngi taxaw di ñu xaar alors yépp nak pour ànd suqali Bambey la waaw bu ko défé waaw. numéro téléphone bi nga xamné rek ñi ngi dañuy bëgg a adhéré tamit ko amoon dina baax. numéro téléphone bi nak mi ngi and ak euh, yaakaar naa ne ku ñuy wax sëñ Jibi Jong. Jibi Jong mo mo mëna joxé bobu numéro. sinon amna numéro Orange moné 77 78. 429. 35 95. voilà bobu numéro la. waaw man je suis le président de la commission d'environnement. dama bëggoon ah ok waaw. waaw dama donc je peux y aller. ñu ngi nii dañuy def point de presse. ginnaaw noonu da ngeen may ñeneen comme ça ñiy feeñ ci français bi ñiy feeñ ci wala waaw mu nga jigéen jigéen may la ñëw ñu ñëw ñëw voilà mu nga baax dugal na leen alaaji Je m'appelle euh, Elage Birakanboj. Je suis le président de la commission d'environnement, du cadre de vie, euh, du mouvement en de euh, ce mouvement a vu le jour au mois d'août de l'année dernière, ici à Bambay, au niveau du centre des handicapés. Euh, donc, on a quand même sensibilisé la population à l'image de Touba Tchakanam pour regrouper l'ensemble des forces vives de notre population pour essayer ensemble de voir ce qu'on peut faire pour accompagner euh, l'État en général sur sur ces programmes. Ce mouvement, en fait, a été initié par Abdou Cham, Ibou Cham, qui vit en Côte d'Ivoire avec euh, ses concitoyens, Abdou Cham aux États-Unis. Euh, pour ne citer que cela, il y en a tant d'autres. Nous avons fait un bureau. On a élu donc euh, un président qui s'appelle Ousseinou Kassé. Il a parlé en Wolof. Et là, Ousseinou Kassé, il vit à Dakar, c'est un, tailleur. Donc nous avons des vice-présidents, Biram Ndiaye et Ousmane Bouch, qui est en voyage en ce moment. Nous avons aussi des présidents d'honneur, à l'image de Malik qui est là, président d'honneur Sénégal. Et euh, il y a Ibou Cham aussi qui est le président d'honneur de l'Afrique et Abdou Cham qui est le président d'honneur des États-Unis. Donc euh, depuis lors, nous avons commencé à cotiser. Nous avons un fonds de caisse qui avoisine les 2 millions et nous avons fait pas mal d'activités. Pendant les vacances, nous avons fait une activité de reboisement et qui a donné ses, fruits. La, plupart des, des populations ont adhéré. Nous avons pris aussi la tâche euh, des, des, des, des, administratifs, comme le préfet, que nous remercions au passage. Elle a été très ouverte et elle nous a aussi conseillé de faire des activités euh, tout au plus euh, pas lucratives, quoi, puisque nous n'avons pas encore de récépissé. Et elle est en train de se, démener pour nous aider à avoir un récépissé. Nous remercions aussi le maire, au passage, le maire Ganembey, qui n'a mené aucun effort, nous a donné 50 personnes pour essayer de quand même régler notre, notre, notre, notre programme. Donc, nous remercions aussi euh, l'ensemble des, euh, des personnes qui gèrent le marché, à l'image de Elage Ndiaye qui est là, et de M. Abdouba qui est le président des commerçants du marché. Euh, en fait, c'est une synergie que nous avons commencée et nous comptons quand même déployer un programme qui dépend maintenant des commissions qui vont suivre, parce que nous avons des commissions comme je vous tout à l'heure, la, commission de l'environnement, dont je suis le président, a la commission de santé, M. Karimba, qui est le président, et la commission des finances, M. Ousmane euh, qui est le président, et le secrétaire général qui est là, M. Tal Ndiaye, et d'autres commissions qui sont là, qui sont en train de concocter des programmes. Ces programmes seront regroupés, condensés sur un document qui fera l'objet d'un plan d'action. Donc pour le moment, nous sommes en train de, de nous démener essayer d'apporter notre pierre sur l'édifice de cette ville qui est tout au, tout au moins en retard par rapport à, beaucoup de choses. Quoi. Voilà pour le moment ce qu'on... Pourquoi Pourquoi ce choix Oui, mais nettoyer la ville, d'abord, c'est un programme. Parce que l'environnement, tout le monde sait que l'environnement est une préoccupation majeure de notre pays. Toutes les villes sont sales. La ville de Bambay était sale, il faut dire la vérité. Bon, la mairie, avec ses maigres moyens, ne peut rien faire. Tout au plus collecter journalièrement ce qu'il peut faire. Mais nous, c'est à nous, comme une population, de nous investir et essayer d'enrayer ce, phénomène qui, gangrène l'ensemble des villes du Sénégal. Voilà, donc nous avons choisi, dans un premier temps, de faire un reboisement. Nous avons choisi, en plus, de faire un, un set comme comme on dit, mais de moindre envergure. Il y a un programme de remblayage. Vous avez vu les, de, sable que nous avons éparpillé au niveau du marché. On va prendre du gravat qu'on va mettre sur les cassis et remblayer encore parce que vous savez, l'entrée de ce marché-là pose problème surtout du, côté, sud. Hein. Donc euh, c'est tout un programme. Nous, sommes à, moitié. On a nettoyé toutes les artères. Vous avez vu l'état d'immondice. On va tout enlever. Et plus tard, maintenant, on va essayer de, de faire le remblayage dans quelques minutes. Bon, disons que c'est le contexte qui nous, oblige d'ailleurs à le faire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un phénomène qui dépasse tout le monde. Mais nous, à Bambay, je pense que nous n'avons pas beaucoup de cas. Tout au plus, nous avons deux ou trois cas à propos du Covid. Et cela, c'est peut-être euh, une jonction de, de force entre l'administration, entre les populations, entre les bonnes volontés, surtout. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes volontés qui ont déployé des fonds, qu'ils ont mis à la disposition de la mairie, à la disposition du préfet, et aussi à la sensibilisation aussi des populations, parce que les gens ont parlé, se sont parlé eux-mêmes et ont parlé aux populations pour qu'ils sachent de, à, quoi ils ont affaire. Parce que c'est une maladie mortelle qui ne pardonne pas, et personne n'a envie de mourir. Donc il y a lieu de prendre des dispositions. Comme vous le voyez, tout le monde porte des masques. Bon, euh, voilà quoi. Donc euh, Bambay est devenu quand même euh, une ville où les esprits ont commencé à changer la jeunesse commence à prendre ses responsabilités. Mais nous, quand même, on a dit que nous devons être devant par rapport à, ce, à, cette marche-là. Parce que ce que vous avez vu récemment par rapport au péage, c'est un groupe de personnes qui se sont réunies, qui ont pris les responsabilités. Vous, vous étiez là-bas, la presse. Vous avez couvert la manifestation. On a eu gain de cause. Le président a sorti 7 milliards et il nous a donné ça. Le péage est là. On va continuer les, activités. On n'attend personne on, ne fait que convier tous les Bambéois à venir nous rejoindre. Parce que nous avons des gens qui sont intègres. Vous, comprenez Je vous donne l'exemple de ce gars-là, Malik Ici, à Bambé, tout le monde le connaît. Parce qu'il est dans des daïres, il a la main propre. Adam Cham, il est là. Tout le monde le connaît à Bambé. C'est un gars très intègre. Il a les mains propres. on ne les a jamais vus sur des, c'est quoi que ce soit qui semble à des compromis. Voilà, donc nous invitons l'ensemble des populations de Bambay à venir nous rejoindre. On cotise 1000 francs pour les hommes, 500 francs pour les femmes. Vous avez décidé de vous Bon, je ne peux pas dire que les politiques ont failli à leur devoir. Chacun a son programme. Les politiciens, ils font de la politique pour être, pour être sur le pouvoir. Arriver sur le pouvoir, ils gouvernent selon leur consentement. L'opposition est là aussi, il critique ce que fait le pouvoir. L'État est là entre nous pour arbitrer tout ça. Mais nous, nous sommes des riverains, nous sommes des populations. Vous savez, il y a des politiques parmi nous. Hein. Moi qui vous parle, je suis dans un parti. Ousmane Nian, il est là, il est dans un parti. Lui, il est dans un parti. Mais quand on entre dans ce mouvement-là, on prend tout ce qui est politique, on le met de côté. Tout ce qui est religion, on le met de côté. Tout ce qui est ethnie, on le met de côté. Notre seul parti politique en ce moment, c'est Bambé. Voilà le problème voilà donc bu dëgg la merci. donc il yéen mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax. grand grand Dieye. Abdou Abdou voilà. kii moom. waa diaspora man maa ngi tudd Abdou Thiam juddoo Bambey quartier la woon na Bambey nekk New York ñun waa diaspora bi dañoo nekk si diaspora ba rek waaye ay doomi waa Bambey rek lépp lu Bambey di liggéey rek xanaa ñàkk ko waaye bu ko yëgee suñu nekk te bu ñu ko fekkee te suñu jëmm dina fa teew parce que nekk si diaspora bi tàggalu jox dara ak dëkk Bambey dañu faa dem rek pour daal di suñu doole dellu si mais ba tey suñu lépp suñu ko mën a amee nu ñu ko mën a amee rek dañu ko bëgg a dellu si waat Bambey waaye man cinq ans kon que man bi ma fa jógee fii ba taxaw ni yëpp ay tali juul la woon mbaar fi mbaar nekku fi woon maa ngi doon wax ma ne ko man maa ngi door a repéré wu bi ma gisee fa la ñu bind fa Abdou Ndiaye Morel Pro ci laa door a xam fan laa nekk. ci dëkk bi yëpp fi jóge yàgg non du ma mën naa ko bañ a tudd retard jamono ni demee rek mais yaakaar na ne képp ku fi nekk ku ne avancement nga bëgg si Bambey nga am ko nga ñàkk ko avancement nga fi bëgg muy góorgóorlu rek mën naa bu yàggee dana avancé mais kenn bëggul si dëkk dellu ginnaaw ak foo mën a nekk loolu liggéey si àll bi sax daanaka li liggéey si àll yëpp daanaka loolu si bëgg pour dëkk bi yëpp si kanam te lu ñu si mën dañu ko si jéem ànd koo yéene tam bu soobee yàlla anglais, un peu anglais, moi pas français. français, mais anglais, Parce que j'ai fait 40 ans dans les pays anglophones. Je n'ai jamais fait les pays francophones. C'est pour. Ah. initiative bi boo ko déggee dafa jóge si suma doom dégg naa la wax ba ñu maa làkk franc mais su ma commencé rek dugal si anglais mbaa dugal si olof soo demee soo ko ñu ko ko wax olof waaw moo ko dogal <laughs> loolu mooy problème bi quoi. tudd Alaaji Njaay di président l'INACO Adiapo di délégué marché président marché bi mooy Alaaji Góora Caam mais ñun ñoo yor kàddoom xanaa di gis gisin bu rafet gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu ndax ki yëngu ci mbir ku dikk ne dama la koy jàppale yaakaar naa da nga ci sawar te seen doxalin rafetlu nañ ko ba nun sax jënd nañ carte bokk ci parce que gis nañ doxin wi jàppoo benno te yàlla moo ne benno leen ma dugal yërmande ci seen diggante ngeen tàqalikoo en déception kon yàlla bu leen dal di sant yàlla bu baax ci seen taxawaay depuis ba ko waxee léegi noo ngi ñaan yàlla bu nu am ndog ba àgg ci bis ba comme yàlla may na nu fekkee bis bi kon dañuy sant yàlla bu baax a baax di sant taxawaay bi bu baax a baax surtout ñi nga xam ne ñoo ko jiitee xamuñu leen ci ay caaxaan liggéey rek leen leen xam muy suñu mag yi Alaaji Ousseynou kase ak ñi mu ko bokkal ak sunu rakk yi ak sunu jabaar yi ak Ibra mi nga xam ne sunu lépp la ñu xalaat ne ñii moom duñ jëm foo xam ne fi caaxaan la wala politique la moo tax bañ egsee automatiquement danoo daal di dagg carte parce que loolu rek la ñuy wër kenn ku nekk yow góorgóorlu liggéeyal sa bopp. keneen door la mën a jàppale état mënul def dara nit ki mooy am pas-pasu boppam état xam ne kee kan mu ngi góorgóorlu mu puus ko kon fi ngeen teg seen tànk fii ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax ci seen taxawaay rafet na bu baax a parce que fi ngeen démarré rek loolu mooy wane fi ngeen jëm xam ngeen ko garab jëmbat garab bokk na ci wax fu lii wax fu lii laay mooy ñeent yi nga xamante ne boo ko bayee boo faatoo ko yool ba daf la fay fekk bokku na ci jëmbat garab defar aw yoon dafa fajukaay jàngu ak ak jàngukaay kon ngeen commencé jëmbat garab da ngeen di xam ne jëmbat garab boobee ker gu ca ku ca noppalu ba ba bu buuftu di wal tuyaaba ba ca nekk dana leen fa fekk kon li ngeen commencé baax na ngeen teg ci nag marché bi nga xamante ne seeni yaay suñuy yaay suñuy jigéen suñ ñëpp kenn ku ne sa wàll nga marché bi ngeen dikk ne dañ koy seetal te xam nañ li ci seetal kenn ku ne jàng li ci seetal set bokk na ci imaan set dana faj feebar ngeen dikk ànd koog nun nag dañuy sant yàlla baax baax di leen sant di sant association bi bu baax a baax di sant ñii nga xamante ne ñoo leen jàppale ngeen ànd ñoom di nu jàppale. sant nag ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal marché bi nga xam ne ñoo di kilifa te ñenn ñi seen i doom ñëw wala ñun ñun ko àndal Abdou Ba nekk kanam yor kàddu marché bi ñoo ngi leen sant bu baax a baax di seen taxawaay di sant presse bi ndax it nag siwal am na loo xamante ne siiwal ko baax na li tax muy baax. ki nga xamante ne bëgg na lu baax lu mel noonu bu ko gisee dana ci copier. am na ku ma woo léegi ndol-ndol ci commerçant yi la ma ne ma seen taxawaay de gis nañ ko parce que dañ ko dugal ci groupe bi kon kooku yaakaar naa am na ci promotion loolu moo tax siiwal média yi bu ko xeeb xamul lu média di li siiwee cim réew kon ñoo ngi leen sant leen ñaanal di sant di gërëm yal na yàlla defal leen wér lii nuy ragal mu dellusiwaat yal na ko fi yàlla yemale na ko fi yàlla génnee nan ba fàtte ko yàlla ngi nu ci suturaal nag suturaal na nu baax ba mu commencé ak léegi yàlla yàlla dolli sutura kon wa axiru dahwana yi boo selec boo sélectionné ah, génn nag parce que man bokkuma ak ñoom parce que man Matar Matar gis ngeen ko waa Bambey bu buñ leen nuyoo daal di leen ziaraare gis ngeen ne ànd suqali Bambey lii la leen indiloon tey ginnaaw bi nga xamante ne mois d'août bi àndoon nañu ak ñoom ci seen journée de reboisement yooyu nga xam ne daal di nañ ko doon def fii ci Bambey ciblé ciblé woon yenn sit daal di fay dem reboiser fa daal di fay defar tey gis ngeen ko nii ñëwaat nañ fii ci marché bi daal di koy seet seetal Sénégal ngeen gis lool nga xam ne daal di nañ koy ànd ak ñoom marché bi set na xol yi sedd na nit ñi génn di leen ñaanal rek yàlla jàppale leen mouvement boobu ñu gën a takkoo gën a booloo ba ñuy dem di assister seen euh, événement yu bari yu romb yi tamit ndax xam naa ne ginnaaw ni ñu waxee ak ni ñu leen dégloo am nañ ay objectif am nañ ay projet te xam naa ne ñu ngi ci tànku daal di wéyal projet yooyu rek ba Bambey bépp jariña jariñu ci jaajëfal nañ leen mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi woon ci diaspora bi duñu ñu nekk Bambey ak fu waay nekk rek ñu ngi leen di wax ñu ngi leen di jaajëfal dina leen indilaat yeneen événement yo xam ne Bambey TV day daal di dem rek couvrir fa jaajëfal nañ leen. waaw